musiɓe tedduɓe yeɓoɓe ayirde meɗen nde ganduɗa ko tigui tigui en safina tv to gonɗon ene gonirɗon ñalawma mawɗo neni e nder dokku men mbiyeɗeɗo dias hande ko samedi 11 lewru men mbiyeteɗo marsa hitade ujunnaji ɗiɗi e nogase tati hakkude ceerno men ceerno yaro hakkude makko e jasnaɓe woni famille sis e wondiɓe muɗum ñalawma jooɗo neni e ceer ardino ardanno ma won otoji sappo e goo walla ko fayi ɗon tawa ko kanko wiyata kandidé tawa ganduɗa ko kandidé ama kandidé d' abord hande noon gueɗɗe ɗe bonne ni kandidé e kandidé saabu kala ko takki ceerno yimɓe labtuɓe jiyaɓe allah hande footi usi ceerno ha naati o nokku mbiɗene diasa en tawi diasɗaɓe en jaɓɓi ceerno porta jaɓɓungal joɗngal rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe allah meɓe hay goto heddaji no jirɗa oɗo ñalawma ceerno zaka ousmane allah jarama jarama ceerno basiru jetti jomiraɗo subahana wa taala garte en e ngalɗo diguiral bakkel ngal o nokku wiyete ko dias woɗɗa e koye département région mbour woni ko ɗon gonɗen ñalawma hande o en pininani subaha en gumma dakar e gaari ɗo e goɗo wuuro gam wadde ɗo takkusanu mahamadou rasulullah sallah sallam tawne arde hinde ɗum ɓeɗo yimɓe yontaɓe taw ko serraɓe e hinde wiyatede saf en ko sereede saf en ne woodi eɗen gandi ko hinde hen ɓe jeeya eɗen gandi ɗon e ceerno ceerno hamidi ara mbaɗa kala hitande aranon ɗo waɗanneɓe ndeɗe yewtere kono allah e hoddiroji mum 2019 wayri taw hawre rafi gandaɗo ari en gartiri hannde sappo e goho lewru tati ɓirɗiɗaɗi ujunnaji e nogas tati ɗo e jas inchallahu taala ɗum ɗon conférence o ɓayra fuɗɗo dendagal bandiraɓe julɓe warde fof ko natde wuro ngo nde wari nde noon sa wari duuɓi alay saago wode ustiɓe nde ɓe usti ustiɓe o yeehi galleji mabɓe gam duwodirde e e wadde ɓe jaganade ɓe allah moƴƴere yo allah yurowiya fof harde bal ceerno hande en garti ɗo e ngal ɗo diggital ɓoyata golɗe puɗɗo en heede kaɓirde sammamoɗo si gaji kogari e ceerno ba atou mo ceerno men ceerno hamiri yoɗo ɓan e aya moon sufino tv tawne ardi ɗum golle ɗe ceerno men dirtetona ceerno men ceer yeeɗo ne ardi golle e ha jan yimɓe ba madame gangue ɗum ɗon allah jarama on jarama min gaccon keddon jewtan so allah jaam inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokka yi ñi fi teew yépp góor ak jigéen nuyu nañ leen ci nuyoo bi gën ci nuyoo yi nuyoo bi gën ci nuyoo yi mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu am na ñu fay am ñu fayul na ñépp a fay ndax ku fayul da ngay amel yalla ak ndax fay moy farat Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat ñu ngi nuyu ñep suñu gan gi dama ne ci arab ñew nga da nga ñew ci sa famille sa ñew bi fatali nañu lu bari li ci gën a rëy mooy daf ñuy fàttali suñu nijaay Modou Ciss ma ko ñëw nga ñu war la nganale ganale boo xam ne ñu ngi ñaan yàlla mu ganaleel la boppam yàlla gën a man gan ñu wax ne sëriñ bi ñëwuloo ngir tagg kenn ñëw la fi ngir woyaan fi kenn waaye dangaa ñëw ngir woo ñépp ne jëm ca yàlla ndax loolooy liggéeyam fa tabaarakallaahu bés bi yàllaa ko nangu mu amaat ndax ay tolof tolof doxoon na ci mu doxoon ci bés yu bari bi amatul woon yàlla delloosi ko delloosi suñu gan di suñu sëriñ ma wax ne moom fii mu ñëw commune la ndax maire commune bi mu ngi toog ci wetam te xaritam la ma wax ne këram la ndax moom la woon ak suñu nijaay Mor siis bu ñëwee tey ak ci ña fekk fi njabootam te docteur Saliou Ciss nekk ci kaw kon nag moom ñëw na ci njabootam ma wax ne ñu ngi sant alaaji mi nekk président d'organisation yépp ci bés bi lu ne mu def ko waaye ñëwu sëriñ bi ba ko sëriñ bi joxee dat bi ca suñu ziyaar ba ñu demoon ca Dakar ba tey ji amul jàmm bés bi depuis bañ jógee Dakar ci ziyaaru Thierno alaaji amul jàmm yaakaar na ne bés bi dina fomm te bés yàllaa koy fommal waaye gëmul ne dina am ndax bëgg bi mu bëgg mu am ñoo ngi koy jaajëfal moom alaaji di nuyu ñi ànd ak sërif ñay ànd ak sëriñ bi yépp ndax Thierno ku mu àndal ku mu àndal yaqtabis min nuuri Cheikh Bachir ñu ngi leen di nuyu imaam ñu ngi leen di nuyu oustaz ñu ngi leen di nuyu nu raxibu bil jami ñu wax ne waa Diass yépp monsieur le ak collaborateur am yépp ñi mu àndal di liggéey yépp ñu ngi leen di dalal jàmm waaye dalal sëriñ bi ci jàmm di wax ne programme bi guddi na waaye comme xes nañu toog lu ñu ñaanoon yàlla mooy Cerno ñëw ba yëg si jas waa jas jàkkaarlook moom mu xool leen ñu xool ko mu ñaanal leen yàlla may nañu ko kon Cerno lu mu fi ñaante yàlla na ko yàlla nangu allahuma ba mu mos a def rek yàlla na ko yàlla nangu tey ndax Cerno su ñaanee yàlla nangu ko dina bàyyi jas loo xam ne dootu fi jóg abadan te yàlla na ko yàlla nangu kon ñu présenté programme bi ñu ngi koy ubbee njàngum alquran Mahmoud Ciss jàngalekatu alquran la woon bokk na ci ñi gën ci àdduna ndax xayrukum ba moo tax Ki jang alquran ubel ñu jataay bi setam la mo ngi tuddu tamit muhammad sis comme mamam ja mom moy ubi jang alquran quelque aya bu jàngee aya bi noppi ñi dugg ci programme bi ñi jël parole ñu jox len ñu wax ndax bes bi tay besu nun duñu wax lu bari ndax dañu am bes ganu nyankat, ak ganu kat so amé ganu ñaan kat da ngay talal lox so amé ganu wahkat da ngay deglu kon tay nun dañuy talal lox te deglu waye dinañu dalal gan gi ak ñi mu andal bala ñuy jox mot imam Musa, joxel ñaan ñu ubbe ko jetaay bi ñu jàng faatiha sante ko yàlla suñu boroom yàlla nee na ku ngeen sante ma yokk ñu jël faatiha sante ko yàlla ñu jàng salaatal faatiha def ko addiye yonente bi sallallahu alayhi wa ñu def ko ubbee jeetaay bi ñaan yàlla ci barke mag ñi ci leeru sanga bi sallallahu alayhi wa na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci àdduna bi yépp yàlla defal ko ceern yalla bu yaakaar tas yàlla dolli ko sutura ak njabotam yeb amin ya rabbil alamin ñu jang fatiha salatul fatiha bismillah amin ya euh dinañu ubbe jetaay bi alquran ganaw ñaan gu mag gogu yalla ko yalla nangu bu ñu noppee dinañu jox alaaji siis moom mi nga xam ne mooy wax ci turu chef du village dalal gan yi bu ñu noppee danañu jox imam Moussa Pouy mi doon ñaan léegi suñu noppee dinañ jox alhaji Saliou Ciss docteur Saliou Ciss mu wax ci turu famille Modou Ciss bu ñu noppee dina la jox monsieur le maire buñu noppé ñu jox parrain bi dëkk Kesoxaat moy Omar Ngalla Ciss bu ñu noppee ñu jox monsieur le maire buñu noppé ñu jox Thierno kon oustaz Mot Ciss jangal ñu ay aya alquran ñu ubbee ko suñu bëss bi ñaar ñu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 مثل نوره كمشكاة فيها مشباه مصباح عن زجاجة زجاجة الزجاجة زجاجة كأنها دوري يقاد من يضيئها ولو لم تمسسه النار النور على النور نار waji lañuy jox kàddu gi mu wax dalal gan yi waxale chef du village bismillah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته mbokki ndeng mbokki jas mbokki safen mangi nuyu ñepp ku ci nek sa tour ak sa sante bala may wax dara dama len di ñeuk balu ax di len bal ax yalla na boole bal ñun ñepp ndaxte woote ne kaay leen nit ak jinni jóg ñëw wuy si la boo ci santul sa boroom xamoo keneen koy sant ma ciy sant sunu boroom di ci sant mbokki saafeen yépp rawatina sunu mbokki paloor yi te teli ba ma koy tàmbali dama ne waa Palor ñii duma def lenn te waxuma ceeg ñoom ma taal suma oto dem yendoog ñoom waxtaanee bes bii xamal leen ne yëkkati nañu lépp ñu bàyyale leen bes bi moo tax Palor kenn dasu fa macha allah maa ngi leen bu baax di leen gërëm yokkan naa ci sax pour bañ leen a sonnal ma affrété ñaari kaar Njaga jox leen ne bu leen deexee ngeen def ci aller et retour la ko dalee Kàccili Keesoxaat Mbadit Suun Caamboo ba sit ya kenn dasu fa macha allah leen di sant bu baax di leen gërëm bàyyi naa leen ak yàlla yàlla yàlla fay leen may nuyu sunu daayira di safinatu bi nga xamante ne wërngal na këpp Sénégal ba jàll Afrique Europe ñépp ku ci nekk yëg nga bés bi ci ndigalu Cerno ñi jóge Dakar Kaolack tàmba Bendar amul kenn ku das toppani ñu Cerno tey ñëw jas ma di leen sant ci loolu yàlla yàlla fay leen lii ñu ngi ko jàpp depuis mois de décembre Kër Thierno ba ñu demee ziyaaram ana imam Mbaye Siis sin cheikh daane lu amul seede baaxul ñu jàpp ci bés bii ni nga ko waxee mu jaral ma lu ne yëkkati suma alal def ca sumay mbokk yi yëkkati seen alal def ca kenn dasul ma ci sante ñooñu bu baax ñi nga xamantene jël nañu seen alal def ko ci bes bi mu jaral leen nak lu ne lamu ma jaral lu ne jaral leen la ko raw waxna ko ci réception ba ñu def quartier no aduna yef fa la nekkon may sante ñooñu bu baax ñe yekati ciep tek ci suma loxo ñe yekati nak tek ci suma loxo ñe yekati enveloppe tek ci suma loxo ñepp ma ngi leen di sante xeyna na gi duma permettre ma lim ñep waye wolof daani junja doy na wax ci borom xel monsieur le maire momadou Ndione jërëjëf wax naa ci ru ruxane jeetaay gi bok nga ci ñi ko ndax te seigne mort sis askanam bi fi das ci nga bok dee la ne ku seigne mort sis jur nga nek tapet man de nekuma bohat man ku mu jur ku ne wa ilaa nga doon setam boo dee ragal man hélas doonuma ragal yàlla yàlla jàppale la nga yëkkati sa alal lu doon yónnee délégation ñu ñëw fekk ma suma kër teg ci suma loxo boole cak ndox mu takku boisson yu takku moom la siñ bi désero tey yàlla yàlla fay la maa ngi la ciy sant bu baax di la gërëm en tant que maire de la commune de Diass gis nga golo gen nga da gudda way lo ca lal mu yek dem sa mam dem ak seigne morsis ño bok sen geño kon buma fekkon kon gaa la dana ca sanni lama ca man ngir sauver la yalla yalla fey la may sante bu bax wa Ndeng gi surtout les jeunes la ko dalé ba association ba jigéen ñeeg góor ñeeg mag ndaw ñi ñepp ñoo dugal seen loxo ci bés bi yal na yàlla fay leen Malick jon yal na yàlla fay la mook Njaay Baara ñooy suma coach wolof daa ne peccum liir bu neexee ndey jaa ci jàpp bu doonut woon yéen man na am yàppa du lambi maa day dindi yekkub nag jox ma teg ma naan rendi lii def naa ko ngir ceerno Malick yal na yàlla fay la may sant tamit sunu chef de quartier di Saliou Dione guddeeg bëccëg 24 heures sur 24 mu may woo foo toll fan la situation bi tollu tiit naa mbaa dina baax ma ne ko boo tëddee nelawal noo ngi fi lu Thierno tufli lu ne mu tooy kii dama ne lu mu tufli lu ne mu tooy moo tax ma topp ci saawam topp ma keneen de dégluwu keneen moom laay topp moom laay déglu moma yo bu ba ci cierno bashir muntaha tal presenté mako ko may ñaanal gorga ga muy ré contane bég ca Thierno yalla la di santat bu bax wa Ndeng di sante sumay jigen ñi nga xamantene ne ni ma la ko sang ha cierno xalé yi Ndeng yi liggey si agoro dañ ma wo yekati boisson yu beure tek ci suma loxo ñu ne nañ ko jël jox la ko pour Thierno Désoro ci moy ñom soxna Mariam Thiandoum di sena ak ñoom Adja Binta Ndour ak ñoom faatu député yal na yàlla fay leen bés bi bu ni melee ci teraanga ya nga gis ñoo ñoo ca tax ñoo feelu Mamadou njoon moo tax bés bi neex yal na yàlla fay leen may sant surtout jigéenu jas yi boo demoon waañ wa tey 6 heures du matin kenn dasul la ko dale kubit bengee naara saakiraak benn jigéen dasul ku nekk nga mobiliser wu def bés bi sa bes yal na yàlla fay leen dama ne ku leen gisul ku ne gis naa leen ku leen yëgul ku ne yëg naa leen xam naa ni ngeen tollu ci bis bi yàlla na yàlla fay leen sali yu jërëjëf lii bu ñëwee ba tollu fii ca loxoom la nee naa leen dama sob rekk fekkee ma ca boole na ko yuusu Ndour waxee waaye la ko sos ak la ko tàmbali la ko mébatoon ca booba jamono ca xalaatam la woon kon bu ñëwee ba nii bu ñuy jërëjëfal as gor bu ñuy jëre jëfal nit ñi war nañ koo jëfal yàlla na yàlla fay la doomu siñ moot siis nga lii jomb la war na la sa baay lii la nekkee woon ci dundam la ko dale alaaji Malick ba Abdul Aziz siñ da baax ku ci ne siñ moot siis yëkkati na sa alal def ca yëkkati woon alalam yëkkati jataayam ak tàngam def ca kon bu ñu ca tolloo ñun ñu gis ku ñu doy gis ka ñu miin gis ka ñu xam jëflanteeg moom war nañu moo tax ñuy jëflanteeg Ceerno yal yàlla fay la yal na la fi yàlla wacce bi ci kanam ndama ne maa toog moom mii mu toog ba Ceerno mun taxaa toog mu tey suma loxo ŋàbb ko ma ne góor gi de man suma ñaan laa fi indi wolof yaa ngi joxe xaalis tukulóor yi di joxe xaalis waaye man ñaan moo ma fi indi dama lay ñaanal ne yal na la yàlla musal na mu musalee reenub ñam bi ci njéeréer góor gi wokk ko ne ko na wax li mu wax na ko répété waat ma ne ko no Bachir mu ne ma ma ne ko yow na la yàlla musal ni mu musalee reenub ñaam bi ci njéeréer mu tey ba ci yàgg mu ne mu làkk ko ne ah nja wax na dëgg njéeréer du lekk reenub ñaam bi ma ne ko ma dolli ci mu ne waaw dollil ma ne ko na la yàlla musal ni mu musalee asamaan ci max max du musa maxe tànk buuf taba walut mu toog ba si yàgg mu ne ah, séeréer bi wax na dëgg asamaan du maxe xam nga de kapoon ak ñaañox ba wi laa xootee ba an jen sob ki ngone de kede foog laɓɓa bam watte inanga bada ma teeting ñaañox ba <laughs> yeah. <laughs> <laughs> hamga komaki komaki lawla dukesa gada walla a zoni taɗaɗa fafure daram fu teɓɗe wa aɗek gona lek lek watta in gabada tumbaɗa ɓa ɓekko ɓa ɓekkon piris 200 voltane ayi ayi wosone kahelu kanek ɗisik nu neɓɗaɗa kaɗa innu woɗɗeɗa wo a atuhu sama sub e eh, taso awona ana pet ming da dis nu nek da wayre eh, ay habi inem yal na ko wir de ngone jamano ni siñ ni ko ndi bob ci na ba ngabalay waye ay bof po en 90 helingde ondade na yab ko ren jomi kat pong ziarede premier haying nendi woni inem watambo hen ya hen salusis mm kiska ahay nde a wone in cima hoten penkuni ndi ngooti aéroport nga ngooti masub cuulit nga ngooti mereweede oɗu nga woni kasimon ngay ñaane kohru sicca machallah ceeɗin ndiki ko weddi gis bokku ca ceerno kon wallahi abda banjela jooɗiɗa ɗo henne wallahi mbiɗa ko jiiɗa ɗo henne ko wallahi woni aéroport wallahi e wallahi e wallahi allah wallahi e ngay fo dem si bàyyi nañ ko béy mu jublu penku bi wan ñu ne am na lay ñëw lii ak lii ak lii dina fi ne incha allahu rabbi gis na lu amut seede baaxut ana seene seene ying ndeng a ying ndiki seene maa ko yóbboo fii booba parental bu ndaw la ma yóbbu ko kar Ceerno ana Rislan muy liggéey ci soxnam sale booba ñu ngi soog a jóge maro ñu bàyyale ma ko ma yóbbu fa seena siagoro ubbi mu indi enveloppe am mu ne góor gi dama bëgg a dem liggéey ci usine bi soxnaam do jooy Risla ne ko ndax Mariam danga may bàyyi fii muy jooy góor gi ne ko ma xool mu xool góor gi ne ko demal dootoo ñëw lim na pona baabe a dokkis di kaxna du noonu seena lu amul seede baaxut yal na yàlla jàppale ñu yu baax yi nga sotti fii bu ma ko doon lim ëllëg du tax mu jeex xam naa ci lu bëri booba jamono jës melut woon nii waaye macha allah alhamdulilah di santaat bu baax waa Diass di sant surtout les jeunes ASC bu ndeng ñu jigéen ñi ak ñu góor ñi ku ci ne maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm ñu jël lii def ko seen soxla ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen gërëm yàlla yàlla fay leen jigéen ñi jërë ngeen jëf Mang ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ndaxte yi ma waroon a wax yépp wax naa ko kër ga tey parce que démb ba tey maa ngi wax sonn naa yal na yàlla jàppale leen asalaamualeykum wa rahmatullah <laughs> yaakaar naa bu ñuy Euh, alhamdulilah ñi may jox kàddu ñu war a teg ci alaaji maa ngi leen di ñaan seen génn wàllu kàddu ñu sos ko ci kàddu alaaji anime na bërëb bi wax na li mu doon bëgg a wax waaye animé na bërëb bi <laughs> ji moo saf xorom nee na léeg-léeg day nax tukulóor yi. wala ne nga firi ko. ah Thierno ku ko ku ko du fi waay wax dinaa ko firil Thierno Thierno laa fi nekkal ah <laughs> El Hadj moom dëgg dëgg dëgg El Hadj moom muus El Hadj Bachir El Hadj dafa bëgg a nekk xalifa xalifatu xalifatu Cheikh. Euh, mais alhamdulilah ba Umar ibnul Xataab dafa waxoon ne dafa fekk Abu Ubaydata Amir ibnul Jaraax mu tëdd ci basang te mooy gouverneuru Jérusalem tëdd ci basang yoon ay morso mburu yu wow ak quelque tàndarma su xiifee ca lay lekk nelaw dab ko mu sàngoo sagar boo xam ne euh, pooj yi sax ñu ngi ci biti mu joy mu ne ko looy joy mu ne ko maa sant bi yonent yalla muhammad sallallahu Alaihi Wasallam yare yaree ku mel yow lolo ko lo le yonent bi def xam nga ku allah ji demb nga gem limu wax ci cierno cierno defar nako ko melul won ni ndax ji mom wax yalla braye kat la won waaw loolu mom xam nañ ko mom <coughs> be toj be toj nak Wah, legi ay aaya alquran lay wax wax ju dafa ju wax jo xamne manon nañu yem fi rek jël micro bi jox ko cierno mu ñaan ñu dem fa tabarakallah yalla la fi yalla bay ngay liggéeyal nak cierno ak suma jay Modou Ciss eh, ñi may jox kaddu ma ngi leen di ñaan ñu sos sen kaddu ci alaji gàttal ko mo ngi bëgg guddii su fekke ne ñun ñëpp dañu waxe nonu temps bi dina dina jeex te duñ jeexle te euh dama ne ñun amuñu lu ñuy wax cierno la ñuy parce que moy suñuy gan bu paree ñu talal ko loxo kon li ñuy wax warul bari so amé ganu wax kat dang koy deglu so amé ganu ñaan kat dang koy talal lox te cierno moy suñu gan ganu kat la kat la kon suñu wax warul gudd ki ci top moy imam Musa Musa Pouy maa ngi koy màggal di ko jox siisa imam Moussa ah, Pouy kon eh, naam laka mazid laka mazid zid wa qassir bi taqsir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 ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين عباد الله سادة الكرام والسيدات وأقول لكم كل عام وأنتم نحن وأنتم بخير بارك الله فيكم ونشكركم بغاية شكر باسم آه، لأهل جاز كلهم ولذلك أقدم إليكم هذه التهيات تهية مباركة طيبة ونضيف إليكم زارة لشيخنا هذا جليس مليك لم يكن متعدبا تريد ذليل زاخر وعجيب aqulu xawli hada wa astaxfiru lii wa lakum wa huwa gafuru mbokk yi gannaaw bi ñu yëkkatee kàddu rek kàddu cant ndax ñoom ñii ñun ñooy seen baay mag mag meer ñooy seen papa ñooy papa alaaji mi ak papa saaliw mi <laughs> mag meer kon bés bi ñu ñoo moom Euh, bes bi fierté la ci ñun hona daaw ne ku tudd diine tudd ñett diine ku ko tudd tudd ñett di nga tudd ndigal di nga tudd jotal di nga tudd fàttali fàttali nekk ko moom ak ndigal mooy moom mii dañuy jotal rek suñu mbégte ak suñu kontante eh, ci turu famille bi yëpp ci suñu turu famille bi ci turu xalifa bi kan mooy xalifa bi dama lañ ko laaj xalifa Mor kan la ah walla dama bëgg loolu leer voilà su ko defee ñu teg ko ci turu Euh, suñu mag jooju di suñu sanga suñu doom nijaay la dama leen di tooñ suñu sang lañu kon tabaarakallaahu ci seen tur rek moo tax ma yëkkati su ko defee di nuyu waa Jës yëpp ñi fi teew di ziyaare Ceerno eh, eh, buñ ko gisee rek mu mel ni teewaayam fii teewaayu suñu sëriñ yëpp la teewaayu diine la fa inna diina rasulullahi fii lana halul mashakili duniyaaha wa uxraaha diine mooy solutionner bépp problème problème dundu àdduna ak problème dundu alaaxira bu ko diine mënul solutionner rek leneen mënu ko solution moo tax fa diine diine la fii lana amuñu leneen lu ko ëpp ak problème bu ñu mën a am rek bu ñu ko joxee diine mën na ko solutionner ma ne ko régler kon nag eh, daje bi am na solo ko defee diine moo ndigal bi yu taaxu bi isni laala bi diaaya wa kullu mutaan bil wilayati fa huwa mursalun kooku ndigal li la képp koo gis ñuy topp rek dafa am ndigal wa ma arsala rasul illa li bi isni la amul benn yonent bi ñuy yónni lu dul ndigalu suñu borom moo tax bu toogee fi ma ne jalisu malikin lam yakun mutaadiban taridun zalilun za خير واجب كون داني كو ديلو تيا يونت بي صلى الله عليه وسلم كي لين ريبريزانت خليفه الله في الارض نيوم لا ني نين دي خوله لا سيني بابا كسر دي الله تعالى دفور ابو دين وتقوى كان لا كو حاجم الفوتي ابو دين وتقوى اخو صدق والهدى ولم يرد ما ليس عليه العرادي كم نينا حاجم الفوتي موي père peeru mooy peeru di diine bu amoon père nee na mooy seen baay xaajamul fuuti ni Seydina euh, Ibrahima nekk abol an abol anbiya yonent yàlla Ibrahima mooy abol anbiya yi yonent yëpp mooy seen baay moo tax suñu Babacar wane aboo diini wa taqwa kon ci biir diine xaajamul fuuti mooy suñu baay mooy baañu baayu képp ku bootu tarixa cheikh moo tax bu ñëwee war nañ ko teral war nañ ñëw eh, ganal ko ne ko marhaban bika su ko defee bu paree gan gi bu ñëwee dafa indi dafay indi sarica <laughs> buy dem muy njéggal Serigne Cheikh dafa wax ne gan bu ñëw mooy borom kër mooy borom kër gi ba keroog mu ñubbi kon geste mooy borom kër gi ba keroog muy ñubbi waaw su ko defee loolu na leer kon sëriñ euh, Thierno ñu ngi lay delloo ziyaara bu baax tabarakallah kon alaaji Saliou la ñuy jox kàddu mu wax ci turu famille bi alaaji Saliou docteur Saliou bismillahi shaytaan rajim bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi Euh, kanji to mboldi tekkima kaneji assalamu aleykum wa rahmatullah kilifa gi neen mu ngi ziyaare ñëpp di tatagal ñëpp ku ci ne mu ngi lay wàcce soo wàccu di la wax na marhaban bikum di mu ngi ziyaare Cerno baax a di ko wàccee wàccu waayam di ko tàllal bu baax loxoom di ko sant ñaan. nee mu ngi sàkku ñaan bu baax a baax a baax sëriñ bi. ci la bëgg a ci la bëgg a ubbee. ndax ci benn at ak genn wàll. ndax ci benn at ak genn wàll. boo kanduki boo kaay na am na ñu fi jóge ñetti nit ci famille bi. mu xalifa ni bu sëriñ Ousmane Ciss mu nekk seen xalifa sëriñ Ousmane Ciss Sakirak nekk aussi imam Alioune Ciss mu nekk imam tamit mu jox imam Alioune Ciss imam Alioune Ciss kër Mbay Fall kër Mbay Fall sax moo topp ci moom anika bitizo awani ngwa mwane borse 45 ans awani a hausuki semaine passée bi rek 보아치데 모두 오시 가이템 cerno ay la toog bu si ñaani bala ngaa si waxtaanee. ah cerno nee mu ngi lay taalal loxo ñi nga xam ne nag dellu nañu barsaax ñu ngi lay taalal loxo nga defal la ñaan incha allah bu ko ñu dugg ci programme bi. Faatih salaatul Faatih ati mawlaana rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. amiin ya rabbi. amin amin ya rabbi bobi dokis kanyis cerno amadou ban neena nah, ñu ngi delu di sant cerno di ko gërëm di ko ñaanal yalla bobi ciona da bobi ñanu si ya ya ko bali ni pour amagne lol lol lol lol mu xadrani neena cerno ñu lay ñaanal de la masu ciono déplacement bi nga def lol dara ko yek yek waye nak ñu lay ñaanal yalla diggante zone Thierno diggante Thierno na famille yi. Mm-hmm. baatin ay wet mu ko baatin. Mm-hmm. nee diggante yow ak famille bi baatin la. ndax ji oustaz Mbaye Ciss woo ci. nee na ki nga xam ne Mbaye Ciss génte na ko. ne Thierno Hoti mpenkuning Dakar yëpp ko xam nga ne ay nga il faut ina da ina ka kaan ceeb. gént bi nga xam ne moom la oustaz Thierno mi lu mu doon wax sànq kii mu ngi ko doon leeralal ci kanam ay jamono maanaam gis na ne jamono ngi ñëw ressource yu bare bare bare dina wàcc fii gisoon na ko balaa tey mu laajte nag Thierno mu laajte jes doomu sët ñëpp kóor yi ah. awase naaraaki benn kumaaki ak gen euh, sikap mbaaw ndekk na pour benn bes nag oto ci gaara so bu nan gaandu basone ni kene ceeloon bi boo fum ne nag maanaam yàgg na maanaam euh, ci euh, ah, waaw wowti sikap mbaaw mu ne bu mu turam ci sikap mbaaw ci benn Saliou Dione anik sët yëpp góor yi. Saliou Dione mu nekk ci sët ci góor gi. anik Saliou Dione anik bo daga. mu nekk nag ko am na nag waa daga la. ana professeur Moussa Seck yàlla ko xaree ajana ay. Moussa Seck yàlla ko yàlla xaree nag boo xayee kaandu benn bés 6 heures ay Thierno Amadou. mu ne nag mu benn jour Thierno Mamadou ñëw këram. bii mu nekk nag saal mu ne ba mu ko dugalee ci saal bi. a jakarlo fotoni yaɓ koori mo jaharlo sama fota mam manaka wallahi yaɓ koori ayima gi e rek lay wër define loolu nag batin la de waɗi tum nawosren waade ɗek amaka ɗi ka nik waɗ sos ziara ni fot wi mono loolo waral ziara bi mono ki dippe e at mom lay wër fu mu mun tey dinaa dem xool fu mu ne ma ziyaar ko. loolu moo waral ziyaara bi. ceerno amady owi jegolu par ce que ziyaara owi ay kiis o arrêté sa mais wi arrêté nak woni kan kaw ndigal malik sis yamgane ayi haale ma no mbowti ayi ɓeyru ko awsone ɓoɗɗa kat ziyarin kayi pour l' instant ɓo réglé ay probléme hamgane ceɗin famille manam geno ha rewde ɓoodere plan o woni ɗi ñak waaw demal demal waaw waaw mu ne maanaam li gën a sooxee ziar bi ci gàttal rek waroon na mën a weet fii bu yàgg waaye lépp wa bu yootee amee na puwaa lépp dañ koy kër danga koy jaaree ci bunt bi euh, Malick Ciss ay xalifaat moo wuti Malick Ciss mooy seen mag ñoom ñëpp mooy xalifa góor gi tey tey tey tey tey ñoom ñëpp ñu ngi seen gina ginnaawam. mi woom ci hinde. mu ne mu ngi wax ci turam ci ndigal. mi woom ndigali ndew si. mu ngi wax ci ndigal. Euh, mbe kidde semaine passée ngoolone ah yifeel ne ndigal bo artal gérer en mu ne woowoon na ko. manam dañu bëggoon a taxawal ziar bi léegi da nga waxoon ne manam nañu taaxir lu tuuti yow rek laay déglu ci digal rek lay dox awo sonei ko nindi alaaji wittu ni kan nga am nga fa ambo elage nga bu commencé ziar bi mona wa sama papa elage don nañ ci waxtaan bu ko defee so lañ ci waxtaané rek loolu déggo rek mu nekk benn benn bar bi inem wet mu wadi wongon côté ni ziar yi lool daal la bëggoon a wax ci côté ziar bi Thierno boobu gidimne boobu ñaanide Thierno ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla taxaw la yal na yàlla aar la yal na yàlla sàmm la nu muy aaree asamaan yal na la yàlla taxaw yokku maxaama yu baax a baax a baax a wuti maanaam ci turu famille bi wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladi hadana wasalaatu wasalaam ala rasulillah. wasalaatu wasalaam ala rasulillah. sëñ Modou Ciss. sëñ Mouhamadou Modou Ciss. ah o rikkoti wo boobi coosaaneng de. jot na nag ñu wax nit ñi kan mooy sëñ mot Ciss. dafa jot léegi. dañ ko réeree nag waaye jot na nag ñu xam ko. sëñ Modou Ciss bu doon dund. su doon dund tey jii. woote ay raake ans. tey su doon dund dina am 143 ans. la organisé le 26 avril 1880. 26 avril 1880. 26 avril 1880. ni ko wuti 143 ans. 143 ans, do ko naté di bobo ak légui mo nga nek 143 ans. ci la gane sa àdduna. ci la gane sa Oustaz Mbaye. Oustaz Mbaye. Serigne Modou sa nijaay sa la. Mm-hmm. sëriñ Moïse sa ni sa maam la sa nijaay la sa papa la. amatul buy tund ci biir saafeen amatu ko. waaw ah. ñoom ñëpp ay sët lañu teg. ndeysaan ñoom ñëpp ay sët lañ ñu fi toog. jarbaatam yëpp nelaw nañu. jarbaatam yëpp nelaw nañ. ki ci mujjee muy semaine passée muy muy sama sama sama bàjjeen buy gaañu sakrak maa ngi ko ñaan yàlla yàlla xaare ko àjjana moo ci mujjoon. Ah, macha allah donc sëñ Mor Siis. sëñ Mor Siis. bi mu nekkee ndaw. bu mu nekkee ndaw. nga xam ne amagul sax fukki ak ñaar. amagul sax fukki at ak ñaar. doon jël li saafi di wax tuxu xam na nañ ko waxee ci wolof. xiis di ci bind ay araafu alxuraan fekk fukki ak ñaar la am. waaw ci ron ay xiisu ron. xiisuran moom la doon bindee ay xarafu alxuraan suñu eh, ci jigéen. ne ki ko meññee ci jigéen. di ko naan di ko naan ko naan moodu. bu ñu jom bu ñu jommal. ne yaayam di ko naan bu bu ñu jommal yow Modou Ciss. moo jógal boppam. moo jógal boppam. dem jàngi ca daara ji. kenn yóbbu kenn yóbbu ko daara. Eh, Sering bu nekkoon ci ngëriñ te mu sant Kulibali. sëriñ bu nekkoon ci ngëriñ ci 1900. 1900. gi mot sis dem jàngi ci ya- mu joge ci moom laxasi. mu dem salum. mu dem Saalum. Eh, mëttali yu ci dëkk jaamal boobu aussi. ne jaamal bobu ñafa nek ñafa nek suñu mbokk lañu sama lañu. ay suñu lañu. te lu lu bari maa ngi eh, wax fan yi ci jas. nee lu bari mu ngi wax fan yi ci jas. ne eh, histoire suñ Mor ñu bari ko ne histoire suñ Mor ñu bari dañ ko suñu ci sama mamu pap nee mamu papam muy jóge woon ci dëkk bu wax. al euh, euh, Saare Alkali. nee na mu ngi jóge woon Pakaaw ca Saara Alkali. maama mi ko jur ci wàllu baay. maama ci wàllu baay. Cissé la sant. Cissé la sant. Alkali la tuddoon. moom la ñu tuddee dëkk boobu. moom la ñu tuddee dëkk boobu ñuy wax Saara Alkali. ñun ci ci deret. ci deret ñoom. soose la ñoom. la ñu ñoom. ci lu ci lu wér. mu ñëwee fii ak jigéenu saafi bi mu ñëwee fii nag laxasoo ak jigéenu saafi saafi. ndax sama sama sama sama sama baay. nee na baayam. 1918 la dellu si. 1918 la dellu si Diass. 1920. 1920. Alaaji Malick ñëw fii. Alaaji Malick ñëw Diass. rëdd rëdd. yu Diass. Jumaayu Diass. ñaari at après mu wuy si. ñaari at après mu ji borooma. yal na yàlla yokk leeram. son papa noonu la ñëwee. sa papa papam noonu la ñëwee. képp ku jàng alxuraan fii biir Safen. képp ku jàng alxuraan biir Safen. bi nga am 80 ans. bi nga am 80 ans. jëm ci kaw jëm ci kaw. sëñ Mor Sis moo la dalal baax. sëñ Mor Sis moo la dalal baax. amul amul amul exception. amul exception. ñuy jëf ñoom ñëpp. ñoom ñëpp ñuy jës. Ah, yàlla def nag. yàlla def. mu jokkoo ci euh, Tiwaawan. mu ak Tiwaawan. jokkoo Tiwaawan bi sax xëy na 1946 47 fekk ñun juddooguñu. waaw nee na boobu sax ñoom ñii juddooguñu. mu nekkoon wóllëre sëñ Mansour Sy Bal xaw ni mag kii. nee na mu nekkoon wala Serigne Mansour si Bal xaw mi. moo ko jëkk jox li moo ko jëkk jox li Ijaasa Tijaani yi. ne lii muy wax. ak rakkam bi nga xam ne moo nekkoon. góor gi mat siis moo ko wax ak rakkam. Ousmane Siis bi nekkoon Sakiraat. ñoo ko ko wax ci seen làmmeñ. bi eh, diggante boobu. diggante boobu. 1958. 1958. Seydou Nourou Tall Seydou Nourou Tall yal na yàlla yokk leeram papam ci moom la doon dem papam ci Seydou Nourou Tall la doon dem moo góor gi alaaji góor gi wàdd bu mook alaaji góor gi wàdd bu mbuur bu doon jógee mbuur doon ñu taal otom bu da doon dawal otom ba buntu kër mot siis góor gi solu góor gi solu mot siis ànd ak moom ci oto bi ñu dem yendoog Seydou Nourou Tall radiyallahu anhum jamian bu nekkoon nit nit xam ne ku ku yéeme la. nee na nit la woon. yal yàlla yokk ci ñoom. yàlla yokk ci ñoom. loolu nekkul loolu du woon hasard. ndax eh, Thierno eh, Omar Foutiyou Tall. Thierno Omar bind boo xam ne. na benn bayit. El Hadj Malick eh, El mu wax ci tubaab. wax ko ci tubaab.

religion daal la nekk ca kaw. ndax ku ñu nee nag ku ñu tudd ci diine ci Sénégal. kenn ku ci amul kenn ku ci mucc El Hadj Omar Fouti. Cheikh Ahmadou mooy yal yàlla yokk leeram. ñoom ñëpp. am na kenn ku ci nekk ànd na ak Cheikh Omar Fouti yu taal. ma wax aussi ne fii ñu nekk fii. nee na fii ñu nekk ci jas ci quartier bii ñu nekk. ci bind boobu ci bind boobu. ma nee na de la religion dans nee na moom tamit mo fii moom mooy maskatu raasi diin ci Safel. diine islam. diine l'islam. ne tariqa Cheikh Ahmed Tidiane. fii la jógee fii la jógee. garab bi nekk suñu gannaaw nii. nee na garab gi ngeen di gis. te dafa lëndëm. te dafa lëndëm. Seigneur Mansour si. sëñ bal xaw mi. bu si sama papa fii. bu si Baye sama eh, eh, eh, Laman Ndiogu. bu seet si Laman Ndiogu. chef de village ancien. sama la doon toog. waaw na bu julli waan tisbaar fii la ak ñooñu ba mu ñaan betimis mu ah bëgg aussi. na bëgg waa Safen delloo ko njukkal. waa Safen delloo ko njukal wa sa delloo ko ko njukal ah ñu tàllal suñu loxo nag. waaw nee ñu ngi tàllal loxo. ma ne du suñu loxo. ah Hamidou lay fay. yalla mo lay fay. ndax waron nañu muy eh, turu waye dara teewut yalla ci sa loxo la ko jaarale alhamdullilah ci sa loxo la ko jaaral Ceerno hamidu dañu xarito dañu xarito mok mom sama dom neena domam ren lay def baccalauréat ren lay def bac mom la tuddé mom la ko tuddé té mu defal ma teranga yu bari bari defal ko teranga yu bëri mënuñu ci jaar tay mu ñu ci jaar tay ah at yooyu passé nag amoon tolof tolof ah yooyu passé amoon na ay tolof tolof tolof tolof yu wér gu yaram yu wér gu yaram waaye mu nekk waaye fii mu nekk ñu ngi sant yàlla bu baax mbir yi fi ñu ko tegoon fi ñu ko tegoon mbir yi nee na bu soobee yàlla ñëwee ba jëlee ko fa sànniwaat ko ci kanam sànniwaat ko ci kanam mu nekk si kanam ah, fi bay euh, euh, fi may tëjee nee na fi muy tëjee mooy kii toog sama wet nee na kii toog si monsieur le maire Mamadou Ndione monsieur le maire Mamadou Ndione ah, gannaaw diine bi nga ne ji xamoon nga ma ci yëngatu xamoon na nga ko ci politique euh, politique baat boobu ko <laughs> baat bi ko wax waaw euh, day la bu day euh, bismillah la ba te fii la ko am na ci rëmmal. na oustaz euh, na fii la ko waxoon. Moussa Guèye ànd ak oustaz Moussa eh, am na baat bu mu waxoon fii ci conférence bi. nee am na baat bu waxoon fii ci conférence bi. li li olof di wax doxaan. nee na li olof di wax doxaan labat. mooy dox ànd. dox ànd. saay-saay biñ ci duggé saay-saay biñ ci duggé lañ suppale bi def ko doxal mais dox ànd won moy politique. néna na politique. Euh, bo féké da nga def politique. mais ne bu fekkee da nga koy def. deug ngay wax deug ngay wax. do war do war. Euh, ngay am yërmande ngay am yermane ci nit ñi. waaw ban bakkar mo ci am bu boba bakkar amu ci bu boba bu féké ne jubul. dugg ci politique dugg ci politique. lepp buy def lu ñaaw nit ñi ni ko sétane buy def lu ñaaw ñukoy sétane ku nekk politicien rek dana nga mel ne ku nekk politicien rek dañuy wax ne ni joju nga mel. ki moy meeru Diass Thierno nee na kii mooy meeru Diass Thierno. nee bëgg na ngeen xamanté bu baax. neena cierno homme de développement la. ab maire. ministre mu naw and ak yow dina waral nek lu yomb. mom and ak cierno dana yomb. nee na Mamadou. wa Ndeng la quartier bi ñu nek sama waajur sëñ Mot. nee na Baye Mot Ciss. dafa nekk nijaayu yaayam ba pare nekk nijaayu baayam. dafa nekk nijaayu yaayam nekk nijaayu way juram bu góor. nee na moom set pire la ci kër gi. moo tax fii mu toog tey. mënoon na fa toog di wax ci ah. turu famille bi. bi mu ñëwee fii eh, daw jek, jéeg. bi mu ñëwee nag daaw na nekk candidat. mënoon na nekk candidat moom Saliou. ah buma ma gañul rek. bu ma bu gañewul. dina bari la ay militants. dina bari la ay militants. Euh, góor des na fenn góor bi ba léegi des na. sama sama maam aussi euh, laman laman Ndiogu des na fi nit. nee laman Ndiogu des seen fi ay nit. comme moo ma féete ci ndaw. comme moo ko féete ci ndaw. yàlla may na ko xam-xam yàlla may na ko xam ci la waxe askanu saafara. ci la askan wi ne. damay bàyyi damay bàyyi. jiital Mamadou Ndione mu naqari ñu bari dégg na ci xaste dégg na ci lu ne mu jàpp fa mu jàpp ah, yalla def yàlla def ñu gagné ñu taxawal ko ñu gagné ñu taxawal ko mu nekk maire mu goré mu goré jox mu ñukal bobu premier collaborateur te wax na ci mbooloo ay yoon yoon. wax na ci mbooloo lu ay yoon ne. buntu mairie Diass. buntu mairie saaliyu la saaliyu la. génnukaay bi génnukaay bi. saaliyu la saaliyu la. bu waxee ma def bu waxee ma def. bu teree bu teree ma baax. Mhm. wax na ci mbooloo saafara yëpp. te loolu sa delloo njukkal la rek. nee na loolu delloo njukkal la rek. mënoon na ci bañ fekk. parce que gars yu bëri bu ñu faloo. waaw ñu bëri bu ñu soloo. dañuy tàllal li ñuy lox tàllal li ñuy lox dem seen yoon. maanaam ko. peut euh, euh, nga jàpp boo ko jàppee nag mel na jàpp nga El Hadj Ciss nee na boo ko jàppee mel nga jàpp nga Alaaji. boo ko na man nga jàpp. ko jàppee mel na ni Saliou nga jàpp. bi muy tëjee. bi muy tëjee. ci famille bi lay delluwaat. famille bi lay delluwaat. yàlla def na tey. yàlla def na tey. maa fi toogandi. yaa Saliou moo fi toogandi. suñu xalifa bi mu gaañoo daaw fii. ne xalifa bu mag bi bi mu gaañoo daaw. Alaaji bu jëlee micro bi ci nit ñi. Alaaji bu jëlee micro ci nit ñi. daf daf mu ne Saali mooy suñu xalifa. Saali mooy suñu xalifa la wax. mu dagg ko biir mbooloo mu dagg ko ca mbooloo mu ne ko déedéet du man. loolu nekk. mënul bi nekk France. mooy xalifa. bu ñëwul mooy xalifa bu ñëwul mooy xalifa. mu ne ma intérim. mu ne ma ne moo gisee xalif du am intérim. du am intérim bëgg a defar rek alaaji <laughs> alaaji moom raaxkat la. moom bu gaañi tabax day xaar bu raax jot bu raax yëpp waaw eh, <laughs> eh, waaw mu mu def la intérim te waa jaa ngi fi. macha allah. yàlla uh-huh. yàlla guddal fanam. ak wér ak wérle. ak jox na ko ndigal. mu ne nekku fi. moom Malick yow Saliou yaa fi nekk. alaaji daaw jéeg. moo toog ci mbooloo. wax ne alaaji mooy porte parole famille bi. bari nga pexe. bari nga pexe. Eh, yàlla am na lu mu la may ci. yàlla am na mu ko may ci fit. jekk nga lool. jekk na. fees nga palaasu. fees nga palaasu. porte parole porte parole. mu ngi noonu sa loxo. wante nag. wante nag. xalif par intérim bi. xalif par intérim bi. dafa nekk ku xaw a naqare dara. waaw jubal. jub jubal la bëgg. bëgg naa nag ci famille sëñ Mor Cissé. bëgg na ci famille Mor Cissé. képp ku ci rek tisoo rek. képp ku ci ne tësew. na nga ma tàggu na ko tàggu. waaw waaw am pexe ñi xam ko. waaw mais am na ñaar yàlla am nañu pexe. yàlla yàlla yàlla boole lépp muy benn nga téye sa loxo. vraiment jërëjëf nee am na ci yow confiance. maa ngi moo ngi lay ñaanal di guddeeg bëccëg. yàlla may la wér ak wér. moo ceerno gisul. Mm-hmm. bu la gisee doy ah, euh, paloor yi. mbokki paloor yi. maa leen di ñaanal di leen gërëm. moo ngi leen di gërëm di leen ñaanal. bi ma leen bu ma nee na bi mu egsee gis leen. xale yi teeru xale yi teeru ko. bi ma yaram dafa daw. nee na yaramam dafa daw. ndax. ndax. da ko yóbbu fu sori. ci sëñ Mor Ciss. 1960 1958. 1958. góor gi bu mu doon def góor gi bu mu dem julli ji foofu. am na benn at daf ko yóbbaale. booba xamul dara. ndax war fas. war fas. bu weex taal. bu weex taal ànd ak góor gi de bànneex bi yëpp fa la yemoon. ci fas weex wa war ci kawam. maa ngi leen nee na mu ngi leen di sant di leen gërëm. seen uh, imaam imaam Ismaïla seen imaam Ismaïla yàlla na ko yàlla xare aljanna. sama xarit la xaritam la woon. dem naa dem na ko seeti. mais sax boobu nee na kenn siwlu ko woon. kenn ko dama ñëw yoxosu rek. dafa yoxosu rek ñëw seet si ko. maa ngi yàlla yàlla xare yàlla na ko yàlla xare aljanna. waaw na ko yàlla xare aljanna. mo ngi len di beggé bi passé dana andak alaji alaaji ak setu góor gi ñu seet ci len inshallah allahumma salli ala sayyidina wa waaw yalla dafa ba wa ma ya'lamu junud rabbika illa huwa Cerno mom mom lay nga togal tay nga xam ko ngeen xamal ci so noppé ngel la mooma yak mak yow bok nga fekk ba këram bismillah waaw kay kon nag amu ci de baax baax eh, eh, maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp eh, di ci jiital sunu sëriñ Thierno di ko sant di ko jéggalu également ci toogaay bu yàgg bi Eh, di wax ne kàddu yi ma yëkkati sax bi El Hadj waxee ak eh, Saliou rek mën naa ne kàddu yi mat na eh, kàddu meer la waaye kàddu sët la kàddu mbokk la kàddu tund bi la waaye kàddu taalibe la également ñëw bi nga ñëw fii sunu sag la ñëw yuy jiitu yi dana fekk xëj na duma fi nekk

limu liggéeyal Afrique waxuma Sénégal rek ndax fii ba Mali fépp foo dem Burkina fépp foo dem defe naa ne jamono yi muy dugal diine ji ci Afrique jamono yu metti la woon jamono yu jafe la woon kon diine jooju bu egsee ba ci ñun képp koo xamante ne jullit nga jàppal na ci wërsëgam rek ngay voyager ba tey kon yàlla nañu ko yàlla fayal ak mag ñu baax yépp ma yëkkati kàddu di gërëm xale yi élage bi def na ko sànq ndax xale yi tey bi ma bi may dugg si gis leen ci pas-pas bi ci taxaw bi muy ASC bi comme muy daayira yi vraiment dama am mbégte te mbegte boobu ma am mën naa ne imaam ratib moom a gën a ëppale mbegte ndax wax na sànq njaboot gi ni mu demee waaye xam naa tey ji li mu yëg ci xolam bu xoolee njaboot gi bu xoolee xale yi bu xoolee gan gi ñu am kon imaam Moussa ñu ngi lay gërëm di la sant euh, di gërëm soxna yi waaye nag di beral loxo waa Palor di leen beral loxo bu baax ndax ñun ak yéen ay mbokk lañ defe naa ne sunu maam jooju liggéey bi mu liggéey ba mu egg si foofu ba mu jéggi foofu ba egg jaamal ak feneen ak feneen defe naa ne bu ñuy wax jàmbaar dëgg ñooñ ñooy jàmbaar léeg-léeg dama koy faral di wax ma ne mag ñi. fi mu nekk nii jataay bii bu làmp yi fayoon léegi ñëpp tiit ñëpp jaaxle te pourtant bukki amatul ci àll bi mag ñi jamono yooyu amuñu làmp amuñu làmp te da teewul dañ naan xuus ci àll bi lan moo leen téye woon mag ñooñu lan moo leen téye woon lu dul imaan lu ngëm yàlla delloo lépp ci yàlla jàpp doomu aadama bu sa bopp méttee nga defe ne boppaa gën a métti bu sa bañ mettee nga defe ne àllaaxira nga jëm lu la dal nga defe ne foofoo gën a métti bu sa loxo duggoon léegi ci safara nga ne booboo gën a métti kon nit koo ni doo dara mu mer waaye gannaaw yàlla nag ñun la def xalif ci kaw suuf ñun nit kon lépp dañ ko delloo yàlla doomu aadama fu mu toog dafa war di sant yàlla dafa am benn dof nit ko xam ne bopp bi àndatul ak sagoom muy faral di wax naan yàlla maa ngi lay gërëm mënoon nga ma def ma nekk mbóot mënoon nga ma def ma nekk fel defoo ko nga def ma ma nekk nit ma ne kooku de mu ngi ñuy waar kooku est-ce que gënuñu gëm yàlla sax ndax fa mu gisee mooy doomu aadama boo jógee di dem di dem ci mbiru àdduna léeg-léeg boo ci boolewul ngëm yàlla rek boo moytul dina metti ci yow te dem day jot bes day jot nga bayyi fi auto bayyi fi urusu ngalam bayyi fi lepp te boy dem sa njabot luñ la fonk fonk fonk duñ la suuraale ak alal yi alal yi kay dañ koy yakamti doon ko après kon doomu adama amo leneen lu gëm te gëm yalla nak bokk na ci diggante yi ci sunu diggante yi ñun nit ñi ñu rafetal ñu rafetal àdduna nag bu jaxasoo la la ñu tombeel ba tax na ñaan la ñuy sàkku ba tax na Thierno ñu ngi lay gën a dénk dëkk bi di la gën a dénk njaboot gi di gën a sàkku ñaan bi ngeen doon ñaan ndax wolof dañ ne ñaan bu nangu sonal borom ñaan bi ngeen doon ñaan ba mu nangu séeréer saa ni sax bu ñu daan fecc ñoom ñuy tàllalee seen loxo yi day mel ni avion.

dagg village du Dias la xolp village du Dias la dagg xolp li ci ëpp 2800 hectares yi mu ngi jas 700 yi mo nek ci benen commune bu ñu wax yeen jas zone économique spéciale bi gëna mag jas la nek 718 hectares industrie yu bari ñu ngi fi kon ñaan bi nangu na waaye ñaan lu mu nangu nangu nangu ndax même boy ñaan pour mu taw da ngay ñaan rek mais léeg-léeg yàlla bu yëngalee asamaan si nag ba dënnu yeeg yooyu tonnerre beeg yooy jóg boo moytu tam nga salit ne yàlla bii ci la bokk ndax décret bii ci la bokk kon doomu aadama yàlla may na la xam-xam may na la xel may na la nga mën a jat gaynde may na la nga mën a dem géej plongé dàq fee jën yi may na la nga mën a génn asamaan dem nan ma ngi xool yeneen planète loolu yëpp yàlla def ko ci sa biir yóor boobu boo gëmul yàlla kan nga war a gëm alors que yàlla bés bu jot mu rey la dekkal ndax di nelaw di nga yeew kon yàlla nañu yàlla gën a sàmm ñun waa jas ñaan boobu daje jas dina bëri coow <laughs> ndax àdduna moom kuy daw coow doo defar ku bëgg a defar omelette sax di nga toj nan dina bari ci biir nag ay wax yu ci bokkul ndax léeg-léeg ay yóbbante galgal am ci léeg-léeg nit dëxañ ci soxla boppam dal ci kaw ku mu warul dal ndax meeru Diass bi fi falu dafa ko fi at wal at at ak at ak lañ fi def at ak ñetti weer deux mois at ak ñaari weer waaw ku fi def at ak ñaari weer nag jàpp naa ne la mu junj ku am xel di nga xam fa la jëm dañu bëgg buy développer intérêt waa jas bokk ci ak doole rawatina ndaw ñi ak jigéen ñi te ki tànk yooyu lañ taxaw kon ñu ngi sàkku ñaan pour dëkk bi di sàkku ñaan pour conseil municipal bi di sàkku ñaan pour imam yi di sàkku ñaan pour dëkk bi yëpp ñaan boobu nag bu jógee ci tarixa cheikh dañ ciy gën a am yaxin ne ñaan boobu dina nangu bu jógee ci yow dañ ciy gën a am yaxin ndax li la booleek sunu maam jooju yàlla rek la du leneen dëkku bii ngay wax jas même grande mosquée wu jas 1922 la ko mag ñi tàmbali tabax jamono yooyu Sénégal ñu fi am <laughs> mosquée bëriwuñu 1922 ren jii ba ñuy def gàmm gi sax maa leen bi mooy centenaire bi xanaa jas tey jii dëkku diine la bu ñu xaymaa jàkk yi romb na téeméer di dem bu ñu xaymaa jumaa yi romb na fanweer ak juróom di dem bu ñu ro fa waññee daara yi quartier boo dem am na ku fay jàngale alxuraan kon jas fonk nañu diine bu baax fonk nañu pas-pas mais loolu yëpp nag saaliwu comme ni mu ko waxee ci taarix sëñ moon si daf ci bay waar bu rëy mook mag ñi ñun ay xale lañu am na lu ñu xaw a fekkee tuuti ndax wax na ko fii laa dëkk ndax lu Ndione bi mi nekk xale dama daan ñëw vacances yi fii diggante ngaam ndeng daan naa ko def lu bon bon ñetti yoon ci bés bi ngaam la sama yaay dëkk samay maam dëkk ndeng léeg-léeg ma tarxis dem saakiraak ñëw wala ma dem mbayaar ñëwaat ndeng am na lu ñu yàlla may ndeng professeur dama lay gërëm bu baax di la sant professeur Sène ndax élage Hadj li mu wane rek day wane montre yu bokk heure ndeng dan naa nekk sama bop metti sama nijaay ne ma demal ndeng ñu moccal la <laughs> ma départ suma ñewé bay mom lay fi fek mu moccal ma ma affaire bi sedd ma delu waye nak leg leg suma daan xif tamit damay ñew ndeng ñew lek cioyam ba sama bir bi fess ma cioyam kon señ bi fa lay yemalé wax ji dila gëna denk dekk bi te inshallah comme ni ko waxé kóllëre bi dinañ ko gën a fas may gërëm également ñi ma seen ci tribune bi seen naa fi maire bi nga xam ne maa ko wuutu muy Cheikh Tidiane Diouf ma seen fi également yeneen kilifa yu fi teew moom aussi ma koy gërëm di ko sant ndax ñàkk maire bi yàqul jikkoom ndax wuutu nañ ko mais teewul mu ngi teew teewul mu ngi sàmm ngorom mu ngi sàmm kóllëreem sa teewul mu ngi sàmm mbokk ki te kenn déggul kàddu bu ñaaw bu jóge ci moom jëm ci ñun kon Cheikh dañ lay gërëm di la sant di la wax ne sunu rakk nga noonu ñu la ñu la yaree ko dara changé loo noonu ñu la mag yaree bu la ko dara changé loo ñu lay gërëm di la sant ah sunu MC bi tamit sunu kilifa la man su ma la gisee nga taxaw sax damay am kers <laughs> mooy sunu kilifa Imam Mbaye yàlla na la yàlla fay yàlla na la yàlla fay dafa naa ne fàttewu ma dara comme ni nga ko waxee sànq élage doonnoo fit bi rek da nga doon naale bayre bi yàlla na la yàlla fay asalaamaaleykum wa rahmatullah سليا يا إلهي سليا أبدا محمد مع المختار في الكدام jërëjëf yal yalla yàlla nàmm sa bat waaw euh, monsieur le maire jërëjëf jërëjëf ci kàddu gu rafet gi mo ngi nonu cierno ngi nonu yaa ngi noonu dégg na la yaakaar naa ñaar su ngeen àndee liggéeyal askan wi dañu ko gis yalla na leen yàlla Eh, ni nga ko waxee Cheikh Tidiane Diouf sama doomu ndey mu ngi ci kaw ñoo ngi koy sant di ko gërëm Mohamed Diouf mu ngi ci kaw ñu ko xam ci moom Ndour ñoo ngi koy sant di ko gërëm alaaji dina ci ñëw ndax ñoom bés bi lu ci ñépp def moom lañ ci def moo juuf Diouf eh, Cheikh Tidiane ak ñeneen ñeneen ñeneen bés bi Baye Modou Ciss léegi leneen ñi di wax rek bu ñu toggoon tëdd di nelaw yaakaar ne bés bi du am yàlla defar ko moo tax alaaji toujours dama ko doon wax ne bés bi day baax mais gëmul woon ne bés bi du fomm ndax bëgg ki bu ko bëgg ñuy jàll relation la rek bés bi boo ko xoolee ay relation la rek alaaqaatun alaaqaat boo xam ne assasa allahu hadihi من العرش فنزلها على الأرض عن طريق من شيخنا شيخ عمر الفوتي رضي الله عنه عن طريق من فنزل كما نزل الطريق التجانية بأيدي هؤلاء حتى وصل إلى شيخ بشير فتنازل حتى وصل إلى أيديكم فجمع الله شملنا في هذه الحضرة إذن علاقات ركلة ريلاسيون ركلة بيموتسيس كانت له علاقات مع أهل بوت وما حولها بالور alors ci Sénégal Haalpulaar yi da ngeen di dégg ñuy wax ne séeréer yi dañoo bëri am na séeréer saafe am na séeréer siin am na séeréer am na séeréer ndut am na séeréer noon yooyu yëpp amul ñetti séeréer moo am siin saafen paloor noon yi ay saafen lañu jaxasoog wolof yee metti seen séeréer yàqu lu tax ñu tuddee leen noon ñoo sanca Cees saa yu ñu gisaan wolof yi ñëw sanca néeg wala sanca kër ci seen wet ñu dóor leen dóor yu metti suñu leen gisee ñu ne suñu noon yi loolu mooy indi séeréer noonu Eh, waa Palor ba ci Alpha Combaan radiyallahu anhu yal yàlla yërëm ko yokk leeram ba ci Alpha Combaan ba frontière Sébikotane ñoo ñooy Palor Saafeen barewul Sébikotane la yem gi ak Diamniadio ak Mbour gi foofu la yem tuuti ci Thiès bariwul waaye ñoom la arab yi jóge Mauritanie laaj man haula ñu ne humma saafuun haulaay saafuun nit ñu sell lañ moo tax fii boo xoolee cent pour cent ngay am ba ngay dem ci village comme Diass da am cent pour cent jullit an tariqi min Cheikh Seydil Hadji Malick an tariqi min Baye ba léegi Haalpulaar jógut loxoom jógut ci suñu tuub Sëñ Saaliw Baye jàlloo Sarr la Seex Seydil Xaaji Malick yebaloon ca sa ñoom pap Baye Diallo Sarr moom moomu mooy ñëw saafeen Alaaji Malick délégué ko Baye Diallo Sarr moo tuubal Laman Njóog suñu maam Laman Njóog kon sa génération wayjur suñu maam ak laman Diop Baye Diallo Sarr la Alaaji Malik yebaloon te ñooñu ñëw jëkk ci lislaam fi ndax waaw boo demee li wër saafen ba kireen ka jëkk nekk jàngalekat di Birane Ngom Baye Diallo Sarr moo ko fa yóbbu en tant que Cheikh Seydina Hadji Malick kon relation la Thierno relation yu mag yooyu tey Thierno mooy xalifaam moo xalifa Alaaji Maalik ci Saafeen di xalifa Sëñ Mor Siis ci Saafeen di xalifa Seyd ci Saafeen waaye di xalifa Baye Diallo Sarr ci Saafeen waaye di xalaaji al xalifa Alaaji ci Saafeen kon moom ñépp la teewa Thierno bég nañu te dinañ tàllal loxo ba ñépp a bég waaye gis nga Thierno jigéen ñi toog buñ fi nekkut woon doo fi yàgg ndax ku yëkkati kàddu daf lay soof ñoo taaral bërëb bi ko taxaw ci suba ba léegi fajar ñooy togg ñooy raxas te ñoo fi jiituwaat te woykat yele bu ñuy woyee jigéen ñee leen di feelu kon jigéen ñi ceer na ñoo ngi lay dénk jigéen ñi nga ñaanal leen mel ya nga xam ne ñoo yoroon lislaam Khadija ñoom Aïcha ñoo yëpp ummu salamata ah bés bi nag bi muñ ko jógee famille Modou Ciss dañu wax ne dañuy du ñu fecc coloré mukk dañu koy delloo fa woon ak ñewoon ak nawoon ñu ne dañ koy jëloo waa Palor doon yilu tee boy faam tunka hen di ɗon ɓe ɗon henno ha ah, beele ɓe acce tunkaacee kon jeex jox parole bi رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجلائها وسلم عليه وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وأصحابه الكرام البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الحضور نيابة عن والدي الإمامين الكبيرين الشيخ أبو بكر مبي جوف والشيخ عمر سيس الكبير والوفد المرافق لهما أهل صافن كل أو أهل بالور كلهم نسلم عليكم تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit ñi ñu ngi jëkk sant yàlla moom mi nga xam ne bu ñu koy sant yiw yi day gën a yokku leer yi di gën a jolli bakkaar yi di gën a randu xéewal yi di gën a jublu moo waxal boppam ni la in shakartum la azidannakum boole ma sant rek ma dolli ban yàlla ñu ngi lay sant lott nañu nag ci mi ngi lay sante xanaa dañu àbbu santiinu yonent bi mu la santoon naan yaa rabbi laka alhamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azimi sultaanik bon ñu ngi koy sant ci xéewal bu ñu def ñu ngi nuyu kilif yi fi toog yépp ci wàllu diine ak ci wàllu aada ñépp ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ñu ngi lay wàcce sa wàccuwaay ndax damay bañ a lim ndax ñi jël parole bi gaanaka lu duuf ci cin li yëpp wax nañu ko te bëgguma répété donte le nag pédagogie la nag répété ci turu sunu baay Aboubacar mbay juuf ak sunu baay Omar Ciss nga xam ne délégation bu jóge Paloor ñaari imam yooyu ñoo ko jiite ànd ak njaboot gi góor ak jigéen mag ak ndaw ñëw ci bis bii ñoom ak màggu dëkk bi yépp suba bi léegi ñu ngi fi nag ba heure bii waaye fa ñu dëkk xam nañu ne ku ñu amal deux heures de temps ci sa jetaay am nga lu rëy ndax soxla yi ak màgge gi ak ñàkk wér bi waaye suba bi léegi ñu ngi fi ci seen tur lañ leen di nuyoo yéen ñépp rawatina famille sunu maam moot siis maam la ci jun yàlla yàlla yokki leeram paloor yi moot siis dafa am lu rëy benn flambeau bu rëy bu mu yëkkati yóbbu ko ba ci paloor taal ko fa ba ko fa te imaam yi fekkee lépp nag sunu bàyyi ñoom bàyyi mbay ak mag ñii nga xam ne ñoom la àndal nii boobu jamono paloor am na mag yu fa nekkoon di nab nabi ci wàllu diine waaye ci séeréer fonk mbokk ak nangu ngëneel bu yàlla jox jaamam ka fa nekkoon du mu gisee ne mut siis mbokk la ci wàllu deret mbokk la xam ngeen séeréer nu mu doxee fu waaye leb rek am nga fay mbokk te ci wàllu xam-xam ak leer am na lu ko yàlla jox mu woo ak mag waxtaan ak magu dëkk bi ne dañu bëgg kat muy ñëw duñu jiite julli juma wala boog julli feet tabaski ak korite mu def ko ay at nag bu muy commencé boobu man mii di wax ak yéen li ma fekkee ci julli góor gi bu weesoo juróom ëppëw mu gën a nekk a mag yàlla dogal ci mbaaxam ba mu fa jógee junja mag yi ne kat mage naa te gis naa ci ndawu dëkk bi ñoo xam ne li ma doon def mën nañu ko mu am ñu mu leen ci junj mag ña ànd ak ñoom ca loola nattu boobu sama waajur la ko yàlla tegoon muy imaam Ismaila Siis moom la yàlla dogaloon bu mut siis bi mu mën ñëw magu dëkk ba fal ko mu nekk imaamu ratib mu leen jiite ba 2018 le 8 janvier ci 2018 ci lay soog a jógee àdduna flambeau boobu Motsis bàyyi woon mu gàddu woon ko imaam Ismaïla Ciss bu muy jógee ñaar rakkam yii la ko bàyyi sunu bàyyi imaam Mbay Juuf moo toog nii mooy imaamu ratibu dëkk ba léegi ak sunu baay ji toog Omar siis mooy ci imaam yi la bokk ñi ngeen di gis ñi yépp nag ñooy maggu dëkk ba xam bi ñu xam Mor Ciss ak lu mu fa liggéey moo tax ñu ne bis bii buñ ñu ko tuddul woon sax Mor Ciss sunu Mor Ciss la ñoo ko moom Mor Ciss sunu Mor ko moom fii la juddu fii la am na lu mu fi jànge am na ñu mu fi yar waaye am na leer bu rëy ci wàllu dundam foofu la ko wàccee kese waxat man ñoo ko moom wala bokk ñoo ko yéen bokk xanaa ñu wax rek ñoo ko yéen ñoo ko bokk <laughs> moo tax hélas ñu ngi lay sant yéen ñii magam ñu ngi leen di dalal seen xel na hélas ndaw bu mat ndaw la ndaw bu mat ndaw la xew-xew yi bu jibsee dina ñëw ba foofa mag ñi ñépp dëkk bi yépp mu wër ko wax ak ñoom ne leen kat seen bés baa ngi ñëw wax fa wax yu rafet jëf ji jëf rafet moo tax bis bii bu ñëw tuddee ñu ko tey ne yéen la ñu bàyyile bis bi ñun amuñu fi dara dafa ko wax jëf ko nag ban hélas yal na la yàlla gën a sàmm gën la yokk ni nga wuutoo sa mag yi wuutu bi rafet na nee nañu porte parole nga waaye porte parole bu mët par porte parole nga ah mag ñi nee nañu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wane ne leer boobu mot siis bàyyi woon ca keso xat wala boog sotti woon foofa ba léegi wa ma wa ma baddalu tabdila ba tey jii Baye Omar Mbay siis ma lef Mbay Juuf ci nitu daara la Saalum la jàngee ay ati at mom ak sama papa mi Omar sis nitu lagi lañu salum lañu jàngi ay ati at be tay ñu ngi dangal ay doomu julit di genné ay kang yu bari manam li leen mak ñi bayyi lor sànnoo ñu ko dañ ko téye bi legi flambo bi ñu ne du daano seen loxo mu mbay bu mu mën tulé dafa ko jox doomam bi ñu wax salih mu ko cees jangal yoré yore sunu bay Omar mu ngi yore daaram Kër masar bi legi ah ñun ñi doomu imam ismaïl sis itam daara ji mu ñu bàyyiloon mu ngi caaro bi léegi bon flam boobu ñu ngi leen di dalal seen xel ne daane lañ ko bi léegi te incha allah dañu fas yéene yëkkati ko ba faw ba keroog ñu fiy jógee sunu ginnaaw nag yàllaa xam bon nag Moussis kenn mënu ko fay yàlla bi ko mën a fay yàlla na ko fay te dina ko fay incha allah dina ko fay yàlla nee na du sànq jëfub ñuy baax ñiy def ñu baax yàlla du sànq seen jëf te am na ku ko junj sànq mu le maire sëñ daara buy nëbbatu la ku wax rekk feeñ <laughs> gis nga problème yi am te imam wax ko sànq nit ñi dañu bàyyiwul xel alxuraan ñu ci bëri alquran daal dañu yaakaar ne boo waree ñaanlu ñaanlu ci alquran boo amee kër gu bees ñaanlu ci alquran bu sa nit jógee ci àdduna nga jàngalu alquran loolu leen na li gën a tuuti ci mission alquran demal surtu isra borom bi dafa ne bu mu wax alquran ci ñun inna hadha alqurana yahdi lillati hiya aqwam inna hadha alqurana alquran bii téeri ji yéen a xamul waaye yahdi day gindi day orienté nit ñi ci li nga xam ne mooy li gën a wér aqwam afala tafdil loolu ko tax a jóg problème mu économique mu réglé la ko bul sàcc bul ger bul wor bul wax lu dul del wax dëgg kese est-ce que am na lu gën a rafet loolu politique sëñ Salif loolu wax sànq bu ko nit ñi yàqee rek la jóge foofu bon Quran day orienté nit ñi yoon bi gën a baax waaye nit ñi nag nanguwuñu gëstu xóot ci mbot ak secret yooyu nga xamne alcorane da ko ñëw ngir régler problème aduna bi yëpp ma faratna fil kitab bayu mu fi dara yàlla na bayiwul dara ci alcorane yëpp régler nako scientifique yi ñooy xuus ci bi géeru alcorane be top xamne moy ciosan moy ballu way kuy naaw bo commencé wul fofu da ngay lab ci biram rek bon domaine bo gis rek alxuraan leeral na bon nañuy leeral nit ñi njàngale yooyu nekk ci alquran su ko defee yu bëri yiy société bi di jooy mën a daj yàlla nañu yàlla defal loolu Thierno ñu ngi lay ziaral ak groupe gi nga àndal yépp di la wàcce sa wàccuwaay ñaan yàlla yàlla yàlla gën la dëgëral maa ngi ko njëkk a gis ci benn émission bu ko Cheikh bi Bitèye bu mu fàttuwulee invité woon ci dunia muy wax ca bis boobu ci laa ko njëkk a gis ci laa ko njëkk a déglu muy wax bay wax ci sirru alfatihatil kitab bu ma juumulee ah <laughs> salaatul fatihi waaw ci salaatul fatihi boobu ñëw na sax bay wax sirru fatihatul kitab parce que boobu daf ma <laughs> daf ma ñoroon lool ma téye ko fàttewu ma ko ba léegi jëmm ji maa ngi koy xool bi ma ko gisaatee ren na tey ba ne ah <laughs> waa jaangi ni ci ma gisoon <laughs> bon yàlla la yàlla fay yiw yàlla la yàlla gën a sàmm gën la aar ah waa ke soxat kontaan nañu góor yeeg jigéen ñëpp kontaan nañu ñu ɓe fof eɓeni njooli no minen somin njiima tan min ji ko cheikh oumar fouti wutal nde ngarmi ziyar ñanden mbiiɗa kam ceerno basiru nane e suude yettomo mbiwomi ceerno mbimami ceerno min de mbi yiima tan mbi ceerno basiru kononi emin ngandi hannde omar fuutiw nan ɗo e jooɗi cheikh na cheikh ahmad tidian sherif nan ɗo e jooɗi safen fof noon nan ɗo hen kamɓe fof ɓe calminima ɓe juurima ngoɗo wuuro wiyetongo jas e oɗo diwan mbiyeteɗo safen mbiɗi seeɗnuma hannde ko ɓe yimɓe moƴƴuɓe ko ɓe yimɓe juulɓe yimɓe jiɓɓe hoɓɓe ɓaydi minen ɗo min ngoni hamin jibina ɗo henne kon somin kaali ɗum e yeeso ma koko min nganndi séréer safen so a ƴeewi temedre nde aɗi waawi wiide capanɗe njeenoyo e njoyo ɓe fof ko ɓe almuɓɓe cheikh na cheikh amadou tidiane chérif naane noon elas wiini ñohma ɗo henne o wii kala nde o aray moon o funtat on kono cikkumi hannde mbeeten ko alhamdulillahi rabbil alamin nde mamma omarol fuutiw rewata e ndeer saafen on ɗon jamanu wonɓe e ndeer diine l'islam e saafen keewaani kono hannde o nde natɗaa ɗo hene e ndeer saafen a tawii ɗo yaɓɓunoo koyngal makko ɗon fof juulɓe tan ngoni ɗon te ko ɓuri hen heewde ko almuɓe cheikhna cheikh ahmad tidiane chérif radiallahu anhu te ko mbiyanmiɓe toujours ko élage noon ko neɗɗo ƴoƴƴo ɓaydi ko an woni ceerno ceernaɓe safen soɓe wi noon woni omarol fuutiw tal woni ceerno cheikh seydi alaji malik sy te ɗo henne diwan oɗo mo gonɗen ko almuɓɓe alaji malik nanni ɓey diine waɗi ɓey tariyere kon ko an woni ceerno maɓɓe hannde ɗon élage noon wiyete ni funte min on wiya kanko ko almuɗo ma minen somin ngari min ndewa caggal ma kono minen fof komin almuɓe ma ɗum ɗon élage min caloto ɗum ceerno mbiɗi salmine ɓiye ceerno bachir ko sehlam ko neɗɗo moƴƴo hay groupe moɗon daare o nanñi kam en kono aɗi ardi e ɓi nenam woni docteur boubacar ba te mbiɗi anndi ka ceernam ka mawnam ka sehelam ne kadi ɓaydi ko aan e mawniraaɓe ngonnduno to to caaroy kono mbiɗi wiima tan duwawma ɗo henne e jas jaabima ɗo jooɗinoɗa aan e ceerno amen seigne habib njoon jeyaaɗo e galle o ɗo henne gonduɗon haa yalti aduna kono a ɗaccaani haa jooni aɗani heen kanko e saliu sis oɗo hene érage e safen fof emin mbima ngoɗo wuro noon ɗo tolniɗo dille ɗe ni keewi haala kani heewi kono duwanaɗa wuro ngo duwanaɗa meer mbokka cingo saafiji ma wayni ne wati aɗu ndikke ñamci de wawi wati dal ndimne aɗu buurci par ce que ɗi skipɗina hane tuklurna ɓoofe ɓoof saafi joome alquran nga jang alquran lab ay hadis tey wino ca tuuca lakkawaas enen ɓono sonteɓe ceerno nga kon nag mi wayɗune ɓonnanu jakkarlono ceerno watiɗa fo jakkarlono cheikh oumarul foutiw fuutiwu taal ce que a settingde ay ɓoofi ceerno bachiru tall dakar ay ɓoofi ɗen sénégal kono ɓonnano ceerno ɗo foti ceerno bachiru foti cheikh oumarul foutiw foti ali euh, cheikh na chama tidiane sérif foti yonentani ceerno in ciyamen woyndi tuuɓo massacal par ce que besiiɓo hannde hay ka wati ɓo men men ɓen sen abim joona hayeɗe ndi par ce que anabi élage nabi saliw ɓeɗɓa wiɓo meɗ hay ndi inti ceerno men woy tout élage ayi ine awoy senti awoy keeh ceerno men ɓoof ayir ko an awoyn intina pule ndi ɓooɓi hocca mais wi cacingɗen alake ndi rugby safen mbas ɗin l'islam laayit waye ceerno wiya ase ndi rugby safen tuuɓin diine ni te ini ubdole nga fo mara 95 pour cent cin safen ɗin tariha cheikhna cheikh amad tidiane hélas nak ini ƴaari woy sentira ñaañ a wat ɓo ñaaño par ce que ceerno ɓe sirin cin sirin cin ɓo par ce que fo kat e kahat alhaji malik ɗa ɓe ceerno mbiɓe sirin cin ɓa Elhadj nag a waat ɓo ñaaño a waɗi tir taalibe nin ceerno direct ɓo ñaami finooje kon nag ɓo sagit boo tuu ɓo taalibe nin maa ngi leen di xamal ne ceerno mii ceerno yero di suñu mbokk di suñu mag di suñu xarit doon ànd ak suñuy mag dëpp caaro yi ñu xam ko bu baax bi mu taxee tànkam fii li fi Elhadj wax sànq lépp dëgg la parce que dañu adoon ànd ak sëñ Abib Ndiol ñu toog fii ñuy defar bëccëg di defar journée bi damay ne ku jàkkaarlook moom jàkkaarloog nga ak Cheikh Oumarul Foutiyou Tall parce que moom moo toogal Thierno Bachirou kan mooy Thierno Bachirou mooy xalifa Cheikh Oumar tey si kaw suuf kon nag Thierno yàlla na nga yàlla guddal sa fan dama ne ñii nga jàkkaarloog ñuy séeréer saafe kenn gënu leen gore ay nit ñu baax lañu ay nit ñu gore lañu parce que ñun ñi fi juddoo ba làq juróom fukki at ak lu teg te ñu juddoo seen biir ñu yaatal ñu xajal ñu mu ngi mel ni rek bi yonente bi jógee màkk waa Madine nañ ko ubbee woon ñii ñoo raw waa Madine si gan Ceerno xeet bii di séeréer saafeen xamuñu lenn lu dul liggéey jaamu yàlla xamuñu yenn yi képp ku ci def naka si dul noonu rek nañu xoolaat say mbir parce que séeréer saafeen pire daawul tooñ soxlawul yëfu jàmbur soxlawul lenn waaye nag dañuy santaat yàlla ceerno bi sa maam di jaar fii boobu saafeen bëriwul ñu nekk si diine yow bi nga fiy dugg fekk na ñëpp nekk ay jullit juróom-ñeent fukk ak juróom yëpp jokk si tarixa Cheikh Ahmad Tidiane loolu sa maam moo ko liggéey kon nag dañuy ñaan ceerno na nga ñaanal waa Saafeen ñaanal waa Jas ñu gën a ñaanal suñu woyjur sëñ Modou Ciss parce que lenn du hasard yàlla fa mu leen wanale si ginnaaw dundam la waaye yàlla def lii tey ba na sabab bi ñëw ngay toog fii ndax suñu woyjur di sëñ Modou Ciss kon nañ ko gën a xam Saliou sëñ Modou Ciss nañ ko gën a xam parce que du hasard ba ceerno ñëw toog fii ndax sëñ Modou Ciss kon nag ponkal yooyu nekkoon si biir Saafeen liggéeyal diine lislaam nekk fi tey nag dañuy sant yàlla bu demee ba séeréer di jàng alxuraan bu set wicc tukulóor bi toog muy dóoree xaddis dara du si mooy muy làkk arab yu set wicc kon nag tey jaam yi ceerno goreel leen ñii nekkatuñu ay jaamkat ñii ay laam nañu lañu léegi parce que lépp lu ñu yoroon ba ñu doon ne tooroodo mooy kiy jàng kooku moo nekkoon tooroodo moo doon ñëw doon imaam doon lépp tey nag séeréer yi jàng nañu ko nekk tuñay maccubi alaaji mbay siis ñoo ngi lay sant di la gërëm di sant waa jas yëpp ceerno ñaanalal ñu suñu jas bii jas nekk na dëkk boo xamante ne lépp fekk si na ko coow li bëri na wax ji bëri na kon nag say allahuma rek ni ko mbay siis waxee la ñu soxla maire bii di Mamadou Ndione di suñu xarit di suñu lépp incha allahu rabbi dinañ ko téye si loxo indi ko ba sa kër nga jàkkaarloog moom mbay siis ñun kër googu amuñu fa sens interdit fu ñu neex dugg te bu ñu demee Thierno la ñuy bokk añ kon nag Thierno yàlla na gudd fan yàlla na saafeen gën a yàgg si lii parce que tey jii amuñu lu dul saafeen mbay amuñu leneen moom rek la ñu am yàlla nañu yàlla boole dimbali allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërë ngeen jëf cant gu yelloog jëmmam juma tedd ju màgg ja moom mi nga xam ni rek moo yeyoo cant julli ci sangu-sang yi muy sayyidil wujudi wa alimi shuhudi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam mooy borom ngontu li yàlla defal itam ëpp na sax ngont ndax lu yàlla bind moo tax Seydil Hadji Malick ne wa rahmaan shay'an li ne ne li yàlla bind yépp كان تقول مبينك بيني جمرك ما تقول مبينك إنك كان من سيدنا محمد وأوجد باقي الخلق تعظيم حبه عليه تحيات الإله تتيب مولاني يا لجن بن يدفك بن يدري ينجبي صلى الله عليه وسلم وأي مبين يدري ينجبي نكبر تيرا لبابا kon yàlla benn teraanga rek la defal boppam donte lépp moo ko fi def muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla suñu borom yal na yàlla doole ranga ay garaati ki maqaam ki nga xam ni mooy suñu wasila suñuy diggante yonent bi di Mawlana Sayyidi Cheikh Ahmed Tijani Cherif radiyallahu taala anhu ñu ngi yëkkati nuyoo yu tedd yu sell te mooy jàmm yàlla ak barkeem ak yërmandeem yàlla na ko yàlla wàccee ci jataay bi ba jàmm jooju yàlla wër àdduna bi yépp ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax sëñ Babacar Si radiallahu taala anhu mag ñi ne moo daan wax ni soxla bu dee ñaar jàmm am su jàmm amul soxla benn rek lay doon ñu ne ko mooy lan mu ne mooy wuti jàmm ba am jàmm lépp loo yore mu yàgg ci sa loxo rek jàmm am su jàmm amul dara du yàgg sa loxo jàmm jooju yàlla na ko yàlla def ci àdduna bi rawatina réewum Sénégal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi jéggalu El Hadji di jéggalu El Hadji Saliou dama xam ne bu ma taxawee day yàgg te jataay bi lépp yiw la waaye dama yërëm suma kilifa suma sëriñ suma baay suma soppe cerno ci toogaay bi ak mag ñi mel ni ñoom yërëm tamit wax dëgg yàlla jigéen ñi ci toogaay bi ma xam ne bu ma commencé fee du baax la loolu màggat ma laay bañ mu daal ma dafa dund ba am téeméeri at musu ree mag mu la mu dund ba am téeméeri at musu ree rey musu ko def sët yi dajaloo ñu ko maam comme mosoo ree dañu bëggoon rek nga reewal ñu mu ngi ëpp naa def ëpp naa def sama ree ëpp naa def ñuy waxtaan ak moom di naxanteeg moom ba ne ah kon da ngeen di def mbooloo ñii toog nii ñii toog nii ñii toog nii su ko defee maree ngeen gis sa maree bi mbooloo mi toogee mu commencé ree yi commencé daanu di xam gars yi naan ko maam déedéet taxawal mu naan mukk rakkaaju naa dem rek parce que ñoo ko ñaan rey man tamit loolu laay bañ mu daal ma waaye di nuyu كلفي في تاوية دي جيتل تي كلفي تيارنا أستاذ وحنا كل ليلي موي برم جاتاي موكو مو تيتم يالنا موي برم جاتاي لتاح ماني يالنا موي برم جاتاي كيغا خامني تاي تي جامانا موفي توغل مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه di Cerno Mouhamadul Bachiru Taal kii doomu ruuxam la kii doomu xolam la kii soppeem la kii léppam la kon bu toogee ni mooy borom jataay bi kon loolu yàlla ne ñu ni mooy borom jataay bi kon maa ngi koy nuyu di ko ziyaara ziyaara yi ak ci tariqa bi yépp maa ngi koy ziyaara ci ngoon gi ngoon gu tedd gi ziyaaratul istimdaadi imaam ziyaaratu tabarruk ziyaaratu taalluq ziyaaratu wuddin wa shawqi yëpp koy ziyaare ci jëmmam ji tedd ji di nuyu tamit ñi mu àndal ñëpp yëg naa nag ci jataay bi bi ma toogee déglu kàddu yi yëg naa ni waa jas ñu sopp Cerno lañ ñu bëgg Cerno ndax kuy wax ku nekk ni muy waxee rek nga xam ni kii cofeel lay waxe ak xol waaye tamit moom it sopp na leen de ndax ànd naag lu jóge fukki oto jóge ko Dakar pour ñëw ci seen ngont bi bi ma ñëw yi ànd ak professeur Abdoulaye Sène ma nga na ngi toog sol garaam bu weex dend ak alaaji Salim Ciss mi ngi ànd ak imaamu raatibu zawiya ba mu tabaxal Cheikh El Hadj ku ñëw daara ji gis nga zawiya imaam raati baa ngi nële toog ci ginnaaw di imaam Ibrahima la mi ngi ànd ak naayibam imaam Samba Ndiaye bi muy ñëw mi ngi ànd ak doomam Abdoulaye Bari journaliste RTS bi muy ñëw mi ngi ànd ak soppeem. taalibeem doomam Boubacar Ba inspecteur impôt au mi ngi ànd ak Sega Bokar di professeur ànd ak suñu wéyjur Alxaaji Tamsir May ak Cheikh Ahmed Tidiane Ndoye ànd ak doomam Aliou Diallo ànd ak doomam Bachirou Sow ak Zakaria ànd ak doomam Thierno Bachirou tabaarakallaahu ak ak ñeneen waaye ma lim ñooñu rek ñu yóbbaale ñu ci des ànd ak suñu yaay daara soxna Rizlan mu ngi ne toog ak délégation bi mu àndal soxna Oulimata Mbaye ak soxna Aminta Ndiaye ñoom it ñu ñëw ànd ak bi gunge ko ci ay soppeem loolu nag li mooy li sëriñ Babacar waxoon topp safoo faale gestu topp safoo faale gestu loolu la Thierno jëflanteeg tey waa bi ñu ñëwee tamit lépp luy xeetu teraanga ñu fekk ko fi ndax nit fi mu koy dalal ak di ko fa teral xaju fa mooy ci kanam ak ci xol gis nga bi ñuy ubbi imaam باب بومو يكتي لك شي عرب داف كاي خيب يكتي وات بنين باب بومو يكتي لك داي سيت بنين باب بو غنا نيك افعال التفضيل شي باب بوم بور مو جوخ كو تيام تي يونو وقتان لي نك دني وون بو نيوي نانو وقتان الشيخ الحاج عمر الشيخ الحاج عمر تخوى الشيخ الحاج عمر ci diine lislaam loolu lañu waxoon nañ ko waxtaanee waaye xalifi fi waaw xaju fi comme xaju nag te tuddoon nañu Cheikh Al Hadj Omar ci ngontu li ah du ko neenal nag waykat yi maa ngi leen sant di leen gërëm wayi neex na sëriñ bi bëgg na sànq ba ngeen ko fekkee kër alxaaji siis ndax li gën a bëgg ngeen ko wayal moom sooy way wayal yonent bi rawatina nag nga waye yonent bi ci xilaasu zaab bu cheikh alxaaji malik wala safinatu saada bu cheikh alxaaji omar beneen mag tamit moo ko wayal wayam te yonent bi moom bégloo na ko kontaan loo na ko parce que ñëpp la sopp ñëpp la bëgg waaye yàlla dafa dogal nag cëram di cheikh alxaaji omar شيخ الحاج عمر موم نك بوي بوجي وقت خوايم سي دينه خمغا ني وخ في يونت بي جارون نك فلا جار لي ولاف دي وخ ني وات تا واتيت يالا دا فا يوني يونت بي عليه الصلاه والسلام يونت بي بوجي دم موني كو كايما وخ لي ما بوجي نغا ووتيه مكو ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن udu ila sabili rabbika wax nga léegi am na ko wax léegi Aboubacar dafa laaj yonent bi oustaz moo ko wax dafa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan mooy sama mission mu ne ko sama mission man yonent bi mooy sa mission mooy lan nga jële nga woo jaamu yàlla yi jëme leen ci yàlla te loolu yàlla wax yonent bi udu ila sabili rabbika bil xikmati nag wal mawisatil xasana nag su demee ba mu tàng ba dëkk ba dënn jóg xam naa sa dënn mënul ñàkk jóg yow yonent bi parce que xam naa fi ma la yónni waa Quraysh xam naa ñooy ñan xam naa li ñu capable xam naa lañ lay waxi waaye wa jaadilhum billati hiya ahsan su xuloo amee itam na rafet ndax ñëpp say bokk la ñëw yonent bi bukulo ame amee na rafet ndax ñëpp say bokk lañ Cheikh Al Hadj Omar rek bi mu ñëwee radiyallahu taala anhu te gis nga seen ngont li ala daw ne Alaaji Salif ngont mi dafa ala daw ne xam nga jaar-jaaru Cheikh Al Hadj Omar ngeen di waxtaane yéen a ngi koy waxtaane ci weeru Cheikh تسمع الله Omar Chaabaan àllarba ji mujj ci weeru baraxlu wii ci la Cheikh El Hadj Oumar gane jamono àllarba bii di ñëw mujj ci weeru baraxlu wi ci la Cheikh El Hadj gane jamono ci dëkk ba ci dëkk bu tedd bu tudd Xalwaar at yi am na wuute waaye ma jox la ci benn 1212 ci la gane jamono bi mu gane jamono ci ñaari waajur yu tedd yu sell Cheikh Al Hadj Umar ni mu mel dafa fekk waajuram wu góor mel noonu waajuram wu jigéen mel noonu gis nga la yàlla li fi El Hadj Malick waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam كآمنة لكي يزيرها سدفا لدرته آمنة ناقية عن ظاهر التهم وهي إذن أعلن ذا شرفا ونسبة وافتغارا من جدودهم لول مودل شيخ الحاج عمر تنياري ويجر fam baay bu baax am yaay ju baax te alquran nee يخرج نباته بإذن ربه والذي خبص لا يخرج إلا نكدا بمو بمو غني جامونو غني جامونو لا تخيو شغل حاج عمر قال جامونو دا كيما كيمان قال gane jamono ci قال gi يالا أمنا أي yàlla يالا يوخم يالا nitu إلهام وخلين نيلين ilham am na leer goo xam ni wàcc na xalwaar ñooñu jógee seen dëkk ñëw xalwaar pour gëstu leer gi bañ kër la moom Cheikh Al Hadj may fàttali damay bañ dugg foofu ndax imaam dama noonu du ma damay fi ubbil sëriñ bi ndax jataay bi imaam may fàttali nee na yonent bi sallallahu alayhi wa bi muy gane jamono itam looloo am ليلى العروبة بول واي دما بودي حل الدر في رجب ثم المنادي ينادي مسمع الفيم تنبؤوا أن النور الختم ليلكم قد حل في غيمة من أرأر الخيم أن عتبوا بخروا خير البخور وأفلسوا سجاداتي تكريما على الخزن خير الملائكه أبواب السماء فتحت كذا الجنان ونور الشمس في العزم ah ku sopp yonent bi defal ñu ayca Uh-huh. الذي ينادي المسيح الفعيل نبي واو أجمعين ما ربنا دائما يا رسول الله أرحبت ربا لروح خير البحور وعاريس سجاتا بتكريم على الحسن على نبي وعلي أجمعين على بارئنا ودائما يا رسول الله حديجة النوار سيد الحاج مالنا على نبي وعلي سلام ربنا دائما نعم بصحبهم شيخ الحاج عمر nag ñu ne mooy tuubal benn dëkk dugal leen ci bu gaa yëpp duggee ci lislaam commencé di pratiquer yenn saa yi gaa yi fekk ko fële mu lal mbalaanu wasifa mi di wasifa gaa yi xemmeem loolu ni ko dañoo bëggoon nga may ñu tariqa tiijaan mu ni déedéet na lislaam bi mokk ba noppi diine lislaam bi laa wax na mokk ba noppi amul tuubal tey def la taalibeem tey déedéet da lay tuubal def la taalibe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak yow ci jukko yonent bi di la jàngal diine ba nga xam diine soo xamee diine l'islam ba mu xam ni kenn mënatu laa nax ci diine soo bëggee mu may la tarixa mu soogaan lay may tarix wax nga léegi monsieur le maire ni ay Mali foo dem Niger Nigéria téere bi sëriñ bi fu sëriñ bi jaar fu Cheikh Al Hadj Oumar jaar sëriñ bi bind na foofu yëpp ay njabootama fa nekk ay doomam lu tax ay doomam nekk fa da daan tuubal ab dëkk bañ ñu tubbiwaat mu jël doomam ju mu jur bàyyi fa wala taalibe bu mu wóoru bàyyi fa mu leen di jàngal diine kon Cheikh Al Hadj Omar yàlla ñu ko yàlla fay Cheikh Al Hadj moomu nag may waxtaane te ñun gisuñu ko nañ ko xooli ci mujj tedd ci toog fa lay daaneele sama kàddu dama ne woon sax du ma jóg wante mënuma woon bañ jóg mënuma ko woon bañ a def ndax dëkk bi dama yëg ni leen sëriñ bi soppe te wax dëgg yàlla bugguma guddal jataay bi ndax yërëm naa sëriñ bi yërëm mag ñi mel ni moom yëpp te toog ci jataay bi waaw imaam nee li ma doon wax li toogaay bi di métti métti dafa mel ni sëriñ bi dafa beesaat tàq toogaat loolu moo koy dundal ndax ñun xam nañu cofeelam ci Cheikh El Hadj Omar loolu ku nekk ak moom xam nga ni mu bëggee Cheikh El Hadj Omar loo ko naxe ci Cheikh loo bëgg ci moom soo ko jaaree ci Cheikh El Hadj Omar nax ko kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla guddal fanam wéral cëram ci barke ci bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi guddi wax dëgg yàlla Baye El siis Ciss Baye El Hadj li ma indi woon ëppoon na loolu de waaw li ma indi woon ëppoon na loolu ma ne ko li ma indi woon ëppoon na loolu Baye Ablaye Sène day mi ngi may woo am na lu ma bëgg a dee ah Baye Ablaye dee na ma de la baykat eh, xale yi quartier bii am ñu seen benn daayira boo xamante ne at bu jot dañuy def conférence mhm. bu yàggul laa leen recevoir sunu kër dama leen ne incha allahu bu déwénee mhm. am na benn taalube Thierno bu ñuy wax Pape Matar Sylla mhm. buy def conférence damay gis nit ñi di daanu rab di di daanu dinaa fexe ba indi leen ko waxuma leen ko Saliou ana Sëñ Saliou ana Lokot waxuma leen ko kii laa leen doon wax dama leen ne buy conférence gars yi di daanu rab mooy Pape Matar Sylla mii. gars yi di daanu leer. leer. jërëjëf monsieur le maire. ko defee ñun ñëpp nag ñu defaraat toogaay yi. teewluwaat jataay bi déglu sëriñ bi mu jox ni lu ñuy jox ñaan ñu doog a yëkkati jataay bi incha allah te incha allah ku fi toog ba sëriñ bi ñaan da nga yàkkamtil sa bopp ah, da nga yàkkamtil sa bopp conférence bi dellu si waat déwén incha allah ci kàttanu yàlla yàlla yàlla moo tëli lépp ñu ngi jéggalu xaw nañ sax guddal waaye bëgg rek mu neex na ba noppi waaye bëgg rek joxe suñu participation su ko defee Baye El Hadj Ciss jërëjëf kontaan nañu Baye El Hadj Saliou jërëjëf monsieur le maire jërëjëf Baye Abdoulaye Sène jërëjëf ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp su ko defee ñun ñëpp ñu bokk teewlu sëriñ bi mu joxe kàddu yi muy joxe bismillah caggal yonent bi allah e juulde alakuma sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ceerno ne ginnaaw bu ñu sante yàlla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñaan ngërmande yàlla yal na ko yàlla dolle ci suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ak mboolem xulafaam ya ak muqaddamam ya ak ay taalibeem ne yal nañ yàlla may bokk ci ñoom nee ñu def tawassulu ci taalibeem Mawlana Cheikh El Hadj Omar al Fuutiyu radiyallahu taala anhu moom ak suñuy wayjur suñu sëriñ Mawlana Cerno Bachir Muntaga Taha Cheikh El Hadj Omar al Fuutiyu ne ki ñuy ñaanal yàlla yàlla na yàlla yàggal ko suñuy kanam ci barkeen ci yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne bu loolu yi mu nga mbokk yi yëpp assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ne ak ñaan yàlla subhanahu wa taala li yàlla denc ëmb ko ci nuyoo bii yàlla ñu ko yàlla defal ne defal ko tund bi yëpp defal ko mboolem ñu nekk ci réew defal ko mboolem réew yi wër réew mi nee na yomb na ci yàlla yéwén na ci moom yàlla nañu ko yàlla defal nee bu loolu wéyee wax ji du gudd ndax oustaz Serigne Mbaye Ciss nu mu ko waxee rek matale na nee wax na ni fii ñaari mbir rek lañ fi ñëwee wax ñu déglu ak ñaan yàlla am ci it njort bu rafet ne yàlla ñu nangul ne liñ fi wax yëpp dégg nañ ko te comprendre nañ ko ne ci gàttalu rek ba yëfi des ci suñuy xol ne liñ fi wax yëpp lu mu bari bari ci walu suñu diin islam bi neena ëppul ñetti mbir ne jawharul islami يدور حول ثلاث ميقات العقيدة العقيدة العبادة العبادة والأخلاق والأخلاق كدو قاعد فندق الله ليه يوري باس باس تي الله nee nga gëm ko moom rek mooy ki ñuy jaamu amul keneen ku ñuy ku yeeyoo jaamu ku dul moom jiɗa rasulullah sallah sallam yemtina ɗum e nga bëgg yonti salallahu alayhi wa nga roy ko ci mboolem jaamu yàlla yi wain kuntum so tawi oɗon jiɗi allah yiɗa on ndeweniraɓe mba sallah sallam ne bude bëgg ngeen yàlla bëgg leen rek topp leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam so tawi en ndewi allah en ndeyni ne bude jaamu nañu yàlla ba noppi nee na nag ñu am jikko bu baax ndax lii la ñu yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam innama bu istu li utammima maqarima al axlaq nee nag lii mooy diine jeex na nee da ngay gëm yàlla nga topp yàlla nga yore jikko bu baax nee lépp lu manqué ci ñett yi moo xam sëriñ nga moo xam taalibe nga moo xam jigéen nga moo xam góor nga walla ndaw nga walla mag nga nee xamal ne sa diine manqué na ne gëm nga yàlla te doo ko jaam sa diine manqué na ne yaa ngi jaamu yàlla te gëmmuloo ko sa diine manqué na yaa ngi jaamu yàlla waaye gëm nga ko te doo jëf lu baax sa diine manqué na ne ñett yi ñooy ànd ñu nekk diine ne bu wér ci wàllu yàlla ne al aqida موينغم يلا أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله أن تشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أيوة الله قال ما الله وني الله نلا الله مرسل وني الله نه نغم يلا يلا موي يلا تي سخل نغم نيت ينت nee nag jamono jooju nag yeneen mboolem jaamu yàlla yi nag ñëw ne jaamu yàlla yëpp nag ginnaaw tawxiid mooy loo xam ne du wàcc nit ne ba nit génn àddina bu dee nekk nga muskallaf moo xam muskallaf nga góor nekk góor wala nekk jigéen mooy iqaamu salaat nee julli fajar nee du wàcc kenn nee bu dee gëm nga yàlla ak yonentam nee bu dee it nekk nga muskallaf nee ngay ànd ak loolu ci joxe waxtu yi juróom nee ba keroog mënatuloo sax jóg nee nga toog nga ci ànd ak moom ba mënatuloo toog nii nga tëddee ca wàllu ndeyjoor nee bu tëlee nga tëddee wàllu càmmoñ nee nga jaaxaan bu tëlee ngay ànd ak moom nee fekk sa xel mu ngi desandi ak yow nee yaa ngi yaa ngi jullee ak say baaram aɗa yaade heen nga annda ko loolu hayso peƴel natti wawde ummade donte baarami sa ɓunatul jog aɗa wawi aɗa wawi eyo himƴude ne mën nga yëngatu xef ak xippi ne mën nga ne mën nga jullee noonu ne kon nag ne képp koo xam ne nee na mën na garanti sa diggante ak sa borom julli wàcc na la ah nee sa diine la de waaye du diine yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne lépp lu nekkul diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nekkul diine yàlla fof mi denɗi mi wasiima on mi abbini hoore ɓe kulol allah ne kon nag lu jiitu mu ngi leen di dénk waaye nag di jiite boppam di jiita ci boppam ci ragal yàlla أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم واتباع سنة النبي المصطفى الكريم واتباع سنة النبي محمد المصطفى الكريم ne loolu buñ ko defee wa taxalladu bil axlaaqil karimati wa taxalladu bil axlaaqil karimati minha minha xusnul jiwaari xusnul jiwaari wal muamalat wal muamalat bayna bayna al xalqi bayna al xalqi مسلمهم مسلمهم وكافرهم وكافرهم مطيئهم مطيئهم وعاصيهم وعاصيهم لأن الخلق كلها لأن الخلق كلها لأن الخلق كلها كله كله إيال الله وأحب الخلق وأحب الناس إلى الله وأحب الناس إلى الله أنفعهم لخلقه أنفعهم لخلق جاري أنفعهم لعياله أنفعهم لعياله لا فوفين nee nga bëgg ñépp nag jullit ku yéefar ku nga bëggee leen ngir ki nga xam ne moo ko sàkk yow nag nga desee ak sa diine ndax di nga dëkk ak jullit yàlla la sob di nga dëkk ak ku nekkul jullit yàlla la sob di nga dëkk ak sa mbok yàlla la sob di nga dëkk ak ku nekkul sa mbokk yàlla la sob ne teyit yonente wi sallallahu alayhi wa sallam ne jibrilu deññul muy dénkaane ci wàllu dëkkandoo ba mu foog ni sax dëkkandoo bu nit génne àddina ne dëkkandoom dina ko doon ne foofu waxul mbokk de waxul diine ne dëkkandoo la wax ne ñoom ustaas yi ñoo ñuy jàngal ñu wax ne dëkkandoo yi ñett lañu ne ñetti ñoo ñetti ak ñoo dox sa diggante ak moom ne benn bi benn bi ñetti ak moo dox seen diggante ne kenn ki ñaari ak moo dox sa diggante ak moom kenn ki benn ak moo dox sa diggante ak moom ne ak yii yëpp nag ëllëg bu yowmal qiyaame ne dinañ la laaj ci yooyu bu dee baaxal nga àkk yi walla baaxal la leen ne dëkkandoo yi ñetti ak dox sa diggante ak ñoom mooy dëkkandoo bi nga xam ni yéen a dëkkandoo sa mbokk la yéen a bokk diine ne dëkkandoo gi ne ak la dañ lay déglu dañ lay làcce soo ko baaxalee walla baaxaloo ko mbokk gi tamit ak la dinañ la laaj ndax jokk nga sa mbokk sa digganteeg moom walla jokk la woon sa mbokk sa digganteeg moom keneen ki sa diine la innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu ne ndigal la est ce que baaxal nga wala baaxal la ne lépp loo ci defarul nag yàlla mën na la ko téye ëllëg ne kon nak nit bu nekké sa dëkkandoo comme ni ñu mel nii fii mu nekk sa mbokk mo xam waa walla mu nekk wa palor ni ñepp nekk mbokk te ñu mbokk diine ne ne nañu sam ak dëkkandoo gi dañu xam ne kenn ku nekk ci ñun dañ koy laaj ci loolu ëllëg dinañ la laaj ci ak dëkkandoo bi bu dee doo lor sa dëkkandoo hay udditde wone gueɗe ko wayno musique aji ede ko nandi hen ha ha lora koddi mbaɗo fof janggo allah gati même ubbi yenen yengu yëngu yu mel ni ay musique ak yu mel noon bamo lor sa dëkkandoo bu ëllëgee dinaña laaj yoo yu mel noonu e ko nandi hen ak yu mel noonu ɗum ɗan kalam teɗo ne yii dañ lay laaj ak kam ëllëg ah ne ñun nag mbokk saafin en lamdama koddigal ñu lacce ñu dëkkandoo moƴƴi baax na en lamdama diine ñu lacce ñu diine moƴƴi baax na en lamdama endam ñu lacce ñu mbokk moƴƴani baaxul yii yëpp kodi eh, moƴƴi ne yu baax la de kono oɗo ko probléme waaye nag bii problème la te toon janngo ne waaye foofu ëllëg so tawi a lamdama bu dee lacc nañ la ko a wiyata doo wax nañ nay la la yàlla delloo ci àddina mo mbaddunoɗa ne ko amoon problème nee nga jéggal ko nga jéggal ko ne koo tooñoon nga jéggalanteeg moom nee koo mere woon nga jégalanteeg moom ne foofu loolu amu ca de ne foofu ne rëccu moo fa ne ne bu dee loolu la la ko yàlla téye nga wax ne ay suma xama ma bañ a xeex ak alhaji ndax tey tardé naa fi lu ma xeexoon nag moom ne te jégalante wuñu te man maa ngi ko téyel te tey maa ngi fii taxaw maa ngi taxaw ndax ngir lii ne suma xamoon balaa maa génn àdduna nee ma jëggalanteeg moom ma jëflanteeg moom ma nekk ak moom ndax dëkkandoo ndax diine ji ndax mbokk gi ndax bu ma ñëwee fii ndax day fekk loolu yëpp wees na. Allah wi tata ko passe day wax rek jëlal jàllal ah, passer rek ñu jox la sa kayit rek ñu signal la ko la laisser passer jàllal sëriñ bi ne kon nag nañu delloo ci suñuy xel loolu day indi ay problème yu bari ne ci wàllu dëkkandoo ci wàllu mbokk gi ne ak ci wàllu diine ji ne dëkkandoo bi nga xam ne ñaari ak ngeen bokk ak dëkkandoo gi ak ak diine ji fekk nekkul sa mbokk fekk nekkul mbokk nekkul sa mbokk yi ne ak dëkkandoo gi boo ko baaxalul dinañ la ko laaj ak ku diine ji boo ko defarul dinañ la ko laaj comme nag dañ la koy laaj si ëllëg eh, nee nag baaxal ko di fii bu ëllëgee boo demee fekk doo am benn problème mais beneen bi ki nga xam ni sa dëkkandoo bokk leen diine te nekku leen mbokk yi waaye yéen a dëkkandoo ah, e ne ak dëkkandoo gi ne dañ la koy laaj ne kon nag ni ñu góorgóorlu ci suñuy bopp ñu góor góorgóorlu suñuy diine ñu góor góorgóorlu suñuy mbokk men nee e ñu góorgóorlu suñuy mbokk dëkkandoo ne bu nekkul woon ne tey guddi na فوفو لاندون خوس نعم، بني دوغا طريقه تجاني نعم، ني خام طريقه تجاني نعم، ني بولتي يالا دوغالي ني سيفيتازو ادنا اك سيفيتازو الاخره ندخ بكار ñar la بكار بكار اك بكار غودي لازم لازم اك وظيفه إيه، ني داير خاص بكار ييب ne bu doon amoon nañ li yaatu doon nañ ko wax te ne nit li ko composé mooy ñetti mbir mooy tër yi cër yi nga xam ne génn nañu mooy jëmm ji ak xolam ba ak ruuxu ga ne suñu laazim bii ñuy xeeb ne téeméer téeméer yomb na waaye xeebluwul ne lépp a ngi ci biir astaghfirullah ba moo commandé cër yi moo koy raxas ba mu set eh, bépp bakkaar bu ci nekkoon mu génne ko mu set wicc xam nga astaghfirullah ne fukki araf la a ah. ah. as ta ar fi ru alif lam lam ha saqel ne cër yi nga xam ni iblis da ciy jaar ba nga mën a def bàkkaat ci wàllu zahir ne fukki cër la ne ñaari gët e ñaari nopp e gémmiñ muy juróom ñaari loxo e ñaari tànk ak awra ga muy نعم مات نفك نعم با استغفر الله نعم بو سخي استغفر الله الله الله لوتو بكا تجي فوف ني يالا دينا رخصل بكار ييب دي هدا ما كاد دي كاني فوف دي مباسل يادي اكو بول مو فيتي لا تاميت سي ديغنتك باغا دوخ سي لو لازم وظيفه هاندي هاني برد ايوا جوت ييب ndax njampe ak saabu ne li mu li du ko yëkkati mooy ki tilim ne te adduna bi nit ñëpp ñu tilim lañu kuy déglu rajo kuy seetaan journal kuy dem grand place kuy dem ci ay mitin ne boo moytuwul nga am bakkaar te yëguloo ko sax ala ko haalal goɗɗo ne waxuma laak nag leneen haysoto kaari kaari nga déglu diw ak diw am jote nañu walla o parti o parti baddi walla parti bi ak parti bi jote ne nañu ngay wax ne kii moo nekk ci dëgg oɗo ko tooñat kee dañ koo tooñ sabu kumpa ma ànda fekk yow sa kumpa la xamuloo ci dara ànda ko kewi toon xamoo lu fa xew ànda ko woni toon xamoo lu fa ne ànda ko xamoo lu ñu jëflante ànda ko ɓe kaaldi xamoo lu ñuy waxante ànda ko ɓe kaaldata xamoo lu ñuy waxante nga dugg ci soobu ci min fasni islamil من قصد إسلام المرعي ترك ما لا يعني تركه ما لا يعني لي بوكنا باخ الاسلام نيت لب لو خمنه لو سيف لي نان تي ماندو لي لو nee bul ci dox ha ba nga tem nag aɗa ɓooro heen nee ba nga ba ngay simmiku aɗa fiidire nga ci doorante ƴettondire nga ci saagante ha mbiya aɗa warondire ba nga bëgg cee reyante aɗa famani nee yow comprendre o de nee xamuloo de delloo sil sa xel nga xam ne seytaane nee mu ngi lay bëgg nag gañe

alfitnatu ne alfitnatu fa o ko fasadun fa o fasadun la ka o ko talaful na o ko nadamatu na o nadamatu ha o ko hadarud dimai ha ne lépp nga ci fitna ne faabi ne mooy yàqu-yàqu bu fitna ñëwee boppu ne wax ne ñu ne aydu yam ci boppu borom so fitna ari ne fitna bu ñëwee kenn xamul hanki hankitan ñe démb rek almudam goto ñe benn taalibem ko koye musidɓe e eh, eh, eh, alhaji sis no feewi koye mawɓe daayre o jeeya ne ci maggu daayre gi la bokk ci mbokk ci alhaji sis wonɗo yaano jokkoyde en ɗam am fu mu demoon jokki mbokk o nee waxul deful mu ñëw di dugg ci këram ñuy xeex ba kenn far xeer mu doon dox sànni ko mu mooy ki mu ko doon sànni mu dal ci ndiggam ne dem hôpital la fanaan ñoo waroon a ànd tey ne loolu fitna moo ko def ne lépp lu lay yëngal ci fitna moo xam nitu politique nga wala nitu diine wala nitu association wala nitu simple nga ne xamal ni ne ay mbiru ne moytu saabu kala nde fitna mari ndax ne lépp bis bu fitna amee faa o ko fasad faa o fasad la taa o ko talaful maali ne taaw taa o ko talaful maali jawdi bona heen ne alal gi yàkku ci ɗo jooni ɗo jooni ne fii nag so tawi aywa wonko ari ne bu dee am na lu ñëw otoji kele heen ne nga gis ñu yàq oto yi ya galleji kele heen ñu toj yàq kër yi taw ngannda hay ko yeyete bo fekk sax xamuñu lu ñuy dox te joomu waawa hay jaggude hay gooto te nit ki mënul jàpp kenn nde kala ɗo kelɗa bonnuɗa jawdi ñalande te bis boo yàkkee alalu jàmbur sa mbiijuɗomo an no muusirta joomun ko noon muusirtuma boo xalaa ne nu muy yàq nu muy méttee borom noonu la lay méttee a bonnata jawdi joomum doo yàq alalu jàmbur hay ɗo ɗi hay hay hay hareji tan hakkude guure ne même xeex yi sax diggante réew yi yiɓa jiya yimɓe kaɓa nga gis nit ñi di xeex to marché ci marché yi yiya debbo ɓama duggu mum fof rufe gis ñu jël jigéen ñu tuur mboolem lu mu duggoon ewa annda no heɓi te xamoo nu mu ko amee so yeehi annda ko ñalloow noon bu demee xamoo nu muy yendoo ewa ɗum ɗon ne yooyu yëpp ay fitna moo ko indi ne naaw na naawun bi nadamatul ne bu demee fitina bi jeex ne nga dem ba toog nga gis dégâts yi ci ne ne bu dee yàlla da ko jaarale ci yow boo amee xel muy xalaat ne da ngay rëccu nee nag lépp luy indi rëccu nag nee nag jëfe lu dul indi rëccu moo gën xaaw xadratu dimaa yi mooy tuur deret yàlla daal eh, yàlla ñu ci yàlla musal ne istigfaar bi loolu lay liggéey ci nit salaatu ala nabi bi ne loolu xol lay liggéey loolu tamit wax ji bëri na laa ilaha illallah loolu tamit ruux bi lay liggéey ne lii mooy yoonu Tijani ne waxul nag nga ne lu salaatul fatiha waxul nag fatiha bi sëriñ bi junjoon sànq ne kon nag ne mu ngi leen di dénk di ci jiital boppam ragal yàlla ak jaamu yàlla ak jonkalante mbokk ngir yàlla ne wattaqullaha fattaqullaha wa aslihu zaata baynakum ne lii la leen di dénk eh, ne bëri na wax ne ragal leen jaamu leen yàlla. jaamu leen yàlla. toppante leen ngir jëmmi yàlla. toppante leen ngir jëmmi yàlla. boobu nag leçon la kenn ku nekk yóbbaale. mais boobu leçon la kenn ku nekk na ko yóbbaale. ragal leen yàlla. ragal leen yàlla. jaamu leen yàlla. jaamu leen yàlla. toppalante leen ngir jëmmi yàlla. toppalante leen ngir jëmmi yàlla. mooy rafetal leen seen diggante rek. loolu mooy ndenkaane yi. ne du xam-xam nag ne du jàngale lu kilifa gi wax léegi suñu sëriñ imam bu baax e mu ne ba ba bokk na ci lu mel ni mbooloo yu mel ni ne fàttalante e moom mooy lii sëriñ ne kon yàlla nañu yàlla may ñu fekkee na gën ñu déwén ne ne mu le maire ñu ngi lay jaajëfal sa taxawaay rafet na ne yow ak sa équipe bi yëpp ne du ñu fàtte démb nag Mouhamadou Diouf depuis mu ne nekkee ndaw ne ci ñun la àndal ne lépp la fa xew dafay ñëw ne alhamdulilahi rabbil alamin ne Saliou Ciss yow tamit jërëjëf ne def nga historique ziyaar bi. nee waaye nag bu nekkul woon ne xat na doon na ci wax naka la lépp ñëwee um nee lu ko xam rek moom la ak Tamsirou Mbaye ne mu ngi toog ci jotaay ak saalifu jon balaa ñu laa xam ñoom ñett rek ñu toog ci biir néeg ñu wax liñ doon wax te saalifu jon boobu tamsir mbay mi moo ko bu moo ko waralanteeg moom nekkul fii la fa la façon yéene ñëw déedéet ne kusaanaar la bëggoon a dem nee ñaan yi amma nafa mbokk ne mu ne daf ko fay yóbbu salif joni ne déedéet ne jas dañ koy indi haa ko ci ñëw lépp ñëw ne wax lépp xam lépp nag ne xam lépp nag wax lépp moom moo yàq lépp ne moom xam na yàlla xam na nelaaɗo bi xam na salif jonne xam na ne amoon na sax jamono mbimi woppi jas ne daawa xonne bàyyi na jas salif diop nani mbambilor salif diop mu ngi mbambilo salif diop salif diop mu ngi mbambilo mbimi ar mu ne ko ñëwal mi oppo mbambilo mi oppo mi jas mu bàyyi jas allah waɗi salif diop ari yàlla def salif diop ñëw salif salif siis ari salif ñëw fof ɓe ñëpp ñu fekkante ah, mi mis jas salima de mu ne ah jas na bañ na de kono noon ne waaye nag ma en tocci duwa o xaaj ñaan gi ko ɓuri heewde jas lu gën a bëri dem jas golleneji yaha bambilor li ci des dem bambilor kanko mo andi nu ñaan gi meloon yàlla xam tamsir mbay mi xam na fa nekk it xam nañ ne haalata ne du ko wax de kono noon allah waɗi kadi orienté yàlla orienté ñi ñëw fi ɗum waɗno ni ziar bi def ay at ne amul taw min fekk moom génnoon na fi walla Aliou El Hadj Ciss ne yàlla ak El Hadj Ciss ne mu yore pusoom rek muy ñaw muy ñaw ne ba ma rek ba ma rëkkaloore morso yàlla dogal ñu ñëw ne tey nag ne ñëw nañu eh, ne ñu ànd ak ñi baax ñëpp ni wa polor ñew nañ ñoom mom ñaan gi ñoo ñi ñaanal ñen ñep ñu wax amin insha allah wala ñi ñaan comme niñ ko baxo di ñaane ne miñ ba barké yalla rek moko xam ñen ñep ñu àndandoo ñu ñaan ne léegi nak wa polor lu ñu wax rek loolu lañuy def Omar Sëñ Omar ah. <laughs> nga ne moo a valable. nee na bi a a a valable. waaw li mu li mu def fii def ko bële daal def ko def fa. incha allah ne botel yi ñëw fii yëpp dugg na ci ñaan yi. biki yëpp dugg na ci ñaan yi. même indiwul sax dugal.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 ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الهاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات